alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma baad ixwata alkiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte lool dalal suñu sëriñ suñu mag mag mu daara suñu sëriñ suñu xarit suñu wëllëre ak cheikh ab docteur Mouhamad Habibullahi si ñun ñoo koy dalal nag ci bérébam ñun ñoo koy dalal loolu la ñu waxante woon alhamdulilah bi ñu ko téléphoné nee ko dañu bëgg ñëw fii ñu ne ko nag dañuy ñëw ci suñu béréb mu ne ahlan wa sahlan bikum fii makaanikum kon loolu dañ ko koy fàttali alhamdulilah di ko sant yàlla subhanahu wa mu ne bu ma ñëwee man damay nekk kenn ci invité yi gan laa yéen a may dalal kon nag dañ koy dalal tey ci suñu béréb di ko naan ahlan wa sahlan bayna ixwatihi wa bayna sigarihi bayna talaamiisihi insha allahu taala yéen tamit dañ sàpp ci yéen wax dëgg yàlla bëggoon naa ko taarif defal benn taarif mujas mais docteur Habib Ghani yéen ani taarif xam nañ ko ci juhudam xam nañ ko ci wàllu jàng ak jàngale ak wàllu ak daawa ilallah subhanahu wa waaye tamit ak li muy def ci société bi ndax nit nee nañu dinaan ci dëkk bi laa bokk dafa dëkk bi moo ko ëpp solo moom yàlla def na dafa bokk ci dëkk bi waaye tamit am taxawaay bu mag ci wàllu socialement ci wàllu ci mujtama bi daf ci liggéey lu bëri ñëpp ñu bari xam nañ dafa am ay xam ne yu bari fii kon loolu dañ koy ñaanal yàlla subhanahu wa taala yàlla na loolu yàlla yàggal loolu lool mu yàgg ñaa tettee yàlla yàggal yàggal ko suñu kanam waaye yàlla subhanahu wa taala barkeel ci yëngutam yi beneen bi mooy xam na ni moom jaame islamique fii la njëkk jàng kenn la ci doomu réew mi fii la jàngee jàng bu njëkk ginnaaw loolu demoon nu mu tën jàngee fa Euh, rawatina yaakaar naa ci maahat maahat dirasaat al quraaniya léegi maahat ak dirasaat al quraaniya kon ci wàllu quran daf ci spécialisé wu yàlla def ginnaaw la mu ñëwaat fi yàlla baaxee ko mu am minha dem saudiya jàngee ci jaamiatul islamiya madinati rasul sallallahu alayhi wa sallam mu nekk foofu am licence bu dellu ci dëkk bi bu mu dellu ci dëkk bi ubbi daara fii waaw mu ngi ubbi fii ci jagsaaw commencé di jàngal ginnaaw loolu yàlla def tamit mu dem gabon nekk foofu tuuti nekk foofu ci daaw bi di jàngal mu ñëwaat fii ci dëkkam bëgg servir dëkkam mu nekk fi tuuti commencé di jàngal daara jooju moom moo jur mun nañu wax moo jur daara bi moo jur beneen daara bi waaye ànd ak loolu yëpp mu nekk ci daaw di jàng di di jàngale waaye bàyyiwul fàttewul moom ku war a jàngale kon licence la amoon waaye mu fexe ci mbaaxu yàlla subhanahu wa taala mu dem inscrire di Soudan ba mu am foofu magistère mu delluwaat def foofu doctorat ci wàllu tarbiya waaw doctorat ci wàllu tarbiya ginnaaw loolu ñëw na fi alhamdulilah taala am na xamee ci dëkk bi ak autorités yi ñoom ñëpp dañ ko reconnaître wax dëgg yàlla mu ngi jëflante ak moom jëflante ju rafet ci wàllu ñoŋal li nga xam ne mooy jàng ak jàngale kon kenn la ci pédagogue yi nga xam ne ñu ngi dimbal ci wàllu jàng bi ak ci wàllu daaw bi ak ci wàllu société bi kon dañ koy dal ci béréb bi di leen ñaan yéen man bu ma sañoon dañuy amante ak moom benn jataay ndaxte moom dafal nañu ko jataay bi nga xam ne daf ñu ci wax jaar-jaaram ndaxte loolu daf ñu gën a soññ ñu gën a xam ne wax dëgg yàlla arabisant bu ñàkkee faayida ci moom la waaye nag jàng arab taxul nga ñàkk solo jox taxul nga ñàkk faayida kon moom kenn la ci modèle yooyu xam ne mun nañu roy ci moom kon ba ma doon ñaan bu dee mun na xëj ci jeexantal bi mu defal ñu benn taarif bu ndaw ci xayaatam ilmi ak siirab su boobaa loolu doon li nga xam ne yóbbal la ndaw yi ñu mun ci incha allah taala roy ginaaw bu mu joxee li nga xam mooy thème ju mag mooy fiqhul awlawiyaat fi daawati ilallahi taala kon xam na ni daaw bi ni muy demee xam na ni lu wër daaw bi ci ay problème ak ay danger kon daaw jooju dafa laaj nga ànd ak xereñ nga xam ni ngay doxalee ak li jiitu ak ni war a mujjee kon ci loolu lay waxtaan ak kon ñun ñëpp ñu teewlu bu baax bàyyi ko xel bàyyi xel bu baax teewlu bu baax bind bu baax insha allahu taala dinañ jëriñoo kon ñu koy naan euh, fadilata docteur nahnu alladina nurahibu bika fi makanina wa makanika salaamaaleykum wa rahmatulah aleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu barakallahu fiik ya axi jazakallahu xayran allahuma salallah an yastura min uyubi ma la taalamuhum jamian aoudu billahi sami alalim min alcheytani irrajim bismillahi arrahmani irrahim ahmadullah subhanahu wa taala wa ashkuruhu ala niamihi wa alaihi allati la tuaddu wa la tuhsa wa in tauddu nicmata allahi la tuxsuha wa usalli wa usallimu ala nabiyina wa xabibina muhammad ibn abdillah nabiyi rahmatil muhda wa ala alihi wa asxaabihi wa azwaajihi wa man tabiahu bi ixsaanin ila yawmi ddin axibati wa abnaa'i wa ixwaani والمشايخ الفضلاء أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبة المباركة تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه السلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi di ànd ñun ñëpp sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala màggal ko gërëm ko ci ay xéewalam yu bare yoo xam ne moom yàlla ci yërmandam moo ñu ko baaxee waaye ñu ànd ñun ñëpp aussi ñu julli ci yonente yàlla muhammad ibn abdillah salawatu rabbi wa salaamu alayhi waaye di sant di gërëm sama doo sama doom nday bi di fadilate cheikh ahmad tidiane an ak ñi ànd ak moom ci organisation dawra bi waaye jaar foofu aussi di gërëm sunu mbokk yi ci xarakatul falaax ci lu ñu taxaw ci taxawaay bu rafet bu mel ni dajale ay ndaw lislaam ci fukki fan walla lu ko jege di leen jàngale di leen yar di leen fàttali téere yàlla borom bi subhanahu wa ak sunna yonante bi sallallahu alayhi wa alihi ak jaar-jaar mag ñu baax ñi ci lislaam mooy da salafu saalix radiallahu anhum ajmain ah bokk nañ ci sunu chance nag ñu tànn béréb bi te mooy seen bërëb ñu defee ko fi effectivement ni ko cheikh bi waxee noonu la amee ndax man kenn laa ci yéen su fekkee ne ngeen xalaat defee fi liggéey bu am solo bu mel ni ah loolu nga wax loolu laa waxoon te loolu laay waxaat se tey ma waxaat ko suba <clears throat> moo tax bi ngeen ñëwee yéen dalal seen bopp ndax yéen moom béréb yéen war a gunge seen i bopp tamit te yéen a war a dalalaat seen bopp heure boo leen ko soxla waaye yéen suñu doom yi yéen sunu ndaw ñi ñu ngi seedeel borom bi subhanahu wa taala annana nuhibbukum fillahi taala ñu ngi seedeel yàlla loolu ñu ngi seedeel yàlla yàlla xam na ne bugg nañu leen ngir yàlla ah ñu ngi leen di bàyyi la xel nag moom mii di Ahmad ak Zoumala Ami ñoom ñooy shababu ak daawa islamiyya fi Sénégal ndax man ak samay mag ñi commencé nañu di sonn mais suñu leen gisee rek dañuy féex suñuy xol dafay dal te lu ñu yaakaar ci borom bi subhanahu wa <coughs> yaakaar ko ci ñoom mustaqbal daawa bi mustaqbal liggéey lislaam bi ah dana gën jëm ci kanama kanama kanam ci bu fu gën a sore ndax dañuy jàng ñu ngi nii di jàngale ñu yaru ñu ngi nii di yar te ñu ànd bokk liggéey bi bokk ci ñu ci war a bokk loolu wax dëgg neex yàlla maa ngi koy rafetlu bu baax a baax di leen ko seedeel incha allah lakum sumali taarix kon suñu ñëwee nag ci mawdu boo xam ne ci lañu ñu war a waxtaanee ak yéen te ñu tuddee ko fiqul awlawiyaati fi daawati ila te loolu ngeen xam ne moo di dégg boo xam ne war nañ ko dégg ci naka la ñuy wootee jëmale ci yàlla ñu xam ci wootee jëmale ci yàlla bi lan lañu ñu jiital lan moo ci am solo waaye lan moo ci gën a am solo xam ngeen ne <clears throat> dafa am ñett niveau yu am ci liggéey bu nekk liggéey bu ñuy fas walla bu ñuy jëf wala bu ñuy wax wala jaamu yàlla bu ñu war a jaamu yàlla ci àddina rek am na ñett niveau niveau bu gën a kawe li gën a baax liggéey gën a rafet li gën a jëkk ak loo xam ne mooy diggu doomu ak loo xam ne baaxul nu xam ngeen ne dañu war a xam kon liggéey bu ñu fas yéene liggéey rek walla wax bu ñu fas yéene wax ñu xool ci lu gën a rafet xool ci lu gën a kawe ñu jël ko su fekkee mënuñu am loolu quand ñu yem ci digg loolu waaye wàcce ci lu baaxul ci lu yàlla santaanewul loolu war nañ ko sore moo tax nag dañu bëgg xam ci liggéeyu daawa bi surtout yéen sunu ndaw ñi lan moo ëpp solo ci yéen ngeen war a ko jëf war a ko wax war a ko dox war a ko yëngal waaye ngeen xam tamit so loolu mooy la ñu tuddee al ahammu soo leen xamee li ëpp solo li ëpp njëriñ li gën a kawe xam ngeen moom ngeen war a jiital avant nag loo xam ne am na solo loo xam ne baax na jëkk na rafet na waaye li ko gën a baax loolu la war a tànn kon xam nga suñu nee nañu tànn li gën a kawe li gën a rafet li gën a baax li gën a dëgg li gën a <coughs> lu gënal nit ñi kon li nga xam ne rafet na kon waxatu ko rafet na baax jëkk na du loolu la ñuy tànn ñu li gën lañuy ñuy tànn kon su fekkee kuy tànnali gën kon dootul dem ci li nga xam ne baaxul li daan li wàcc loolu lañu bëgg a jàngat ci teen bi danañu xam nag est-ce que soxla nañu di jàngaat lu mel ni surtout yéen ndaw ñi est-ce que soxla ngeen di jàngaat thème bu mel ni pour xam naka la ñuy poser jëf bu nekk liggéey bu nekk ñu xam tolluwaayam boo wara a tànn liggéey ndax soxla nañ ko waaye danañu na juróomi ñaari misaal bu ci nekk ñu feeñal ci gën bi nga xam ne moo ci gën maanaam priorité bi nga xam ne jëf boobu am na ko te juróom-ñaar yi yaakaar naa ne suñ ko noté incha allah lu nu war soxla ci daaw bi mun naa dugg si biir suñu jógee ci juróom-ñaar yooyu dinañu ñëw ci ay ndénkaani yoo xam ne jàngat naa ko ci juróom-ñaari yooyu ma jox ko sama rakk yi sama doom yi pour ñaan borom bi subhanahu wa yàlla dimbali ñu ba fu ñu nekkati ci àdduna rek lu ñu war a def lu ñu war a wax fu ñu war a dem lu ñu war a yëngutu dañuy fexe boo tànn ci liggéey waaye ku yàlla subhanahu wa taala tànn loolu liggéey nag nga am ko kon dootoo dem ci li nga xam ne loolu baaxul wala yàlla bëgg ko wala tamit société bi du ci jariñu kon xam nañu ni ñett niveau yooyu moom mooy am li baaxul ak li baax ak li gën a baax li ñaaw ak li rafet ak li dàq kon loolu soo ko xamee rek nga bàyyi ko sa xel foo war a wax loo war a jëf foo war a dem xool nga ci li nga xam ne moo ci gën te yàlla defal la ci ndam kon da ngay bokk yow ci ñi gën waaw say xalaat moo gën rafet ci xalaat yi say wax mu gën a rafet ci wax yi sa jëf mu gën a jëkk ci jëf yi kon da nekk ku gën yal na yàlla subhanahu wa taala boole ci ñi gën ndax soxla nañ ko effectivement soxla nañ ko ñun wootekat yi ak yéen suñu rakk yi ak yéen suñu xarit yi soxla nañ ko ndax jamono ji ah mbir mi dafay xaw a jaxasoo léegi-léegi ci wootekat yi walla ci yéen suñu rakk yi mbir yi xaw a jaxasoo ba nit ki léegi-léegi dootoo xam lan ngay tànn ak lan ngay bàyyi wala tamit balaas bi nga xam ne ci nga war a posé jëf bi wala wox bi doo xam lan ngay teg ci côté bi ak lan nga teg ci côté bale jaxasoo boobu am nag léegi-léegi dina tax ba nit ki au lieu que mu jël li gën li raw li dàq mu jël li digg dóomu wala mu bàyyi loolu sax jël loo xam ne kat loolu baaxul yàlla santaane ko yàlla bugg ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bugg ko loolu suñ ci bëggee joxe benn misaal tey ci sport wala pratique sport comme ni ngeen koo xamee loolu lu baax la l'islam soxla soxla na loolu ndax loolu dafay may nit ki wér gu yaramam te wér gu yaram bi bu amee ci yaram nit ki dana sawar ci jaamu yàlla sawar ci liggéey sawar ci xalaat sawar ci yëngatu sawar ci lépp loo xam ne soxla nga ko da nga ciy sawar waaye su fekkee doo def sport daal ngay lekk ba suur tëdd nelaw sama yenn mbokk séeréer yi léegi-léegi nga ne ah man kat sport aw ma jotam aw jot doxantu aw ma jot dox aw ma jot euh, jouer nangam wala nangam kon gis ngeen loolu sport bi su ko nit ki jëlee jël ci lu mu soxla defee ko ci anam yu baax mun na sax jokkoo ak benn médecin boo xam ne dafay spécialisé wu ci sport mu wax la li nga war a def ak heure yi ak nangam bi li nga soxla ci semaine bi nga di ko def mais xool leen koo xam ne kat mu ni moom daal sport moom moo koy defal boppam daal heure bu la neex daal nga jël sa ballon dem trois heures de temps quatre heures de temps cinq heures de temps yooyu daal moom da koo ko soxla rek mais yow defoo lu gën wala keneen ko xam ne sax da jël sa dund yëpp nga jox ko sport foo toog daal yaa ngi topp télé yi di seetaan match fu match am ci àddina bi ci Europe ci Afrique ci àddina bi daal yaa ngi koy seetaan joueur bu nekk nga bëgg xam nu mu tudd fan la joué fan la juddoo nangam ak nangam ñaata lay am ci xaalis ñaata soxna la am ñaata doom la am kañ la commencé carrière am fan la tàmbali fan la jeex. xam nga loolu wax dëgg yàlla ëpp la nga ba nga xam ne li nga waroon jëriñu ci sa dund nga jox ko loola kon gis nga li soo ñëwaatee ci njëriñ bi nga ciy war a am nga posé ko da ngay xam ne soxla nga bés bu nekk nga am 40 minutes wala une heure de temps maximum nga yemle foofu li nga ciy war a am ci njëriñ nga am ko li ci def nga def ko ci leneen lu ko ëpp solo noonu la tamit da ngeen léegi léegi jullit ñi am na ñoo xam ne yàlla may na leen alal ju bare ñu dem aji makka joxe seen farata waaye at bu nekk ñu dem koor bu nekk ñu dem ñun ñoon dañuy nam ma kaaba bi dañuy nam ma jumaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen xel baa ngi foofu jéy ay millions ay millions yu bare bare bare bare di financé ci loolu suñuy dem sax ci aji makka bi dañuy dem ci yu mel ne Saloum voyage ñu au ñu fay deux millions huit cent comme ren ñi nga xam ne mooy ujaaj néew doole yi wala ñu dem ci ñi ñi gën a kawee ñooñu ñu fay yaakaar na million cinq 500 wala ñu dem ci VIP fay 7 millions 500 te at bu nekk dañuy dem est-ce que xalaat ngeen ne ñoom suy jëloon xaalis boobu leen ñu dugal ko feneen dimbali néew doole yi tabax ay daara gas ay teen waslu seen mbokk jàppale ñi sonn. di ko gisee ne loolu mu am priorité que di dem aj makka at bu nekk dem omar aj bu nekk ah, kon yooyu yëpp nit ki soo xamee lan ngay war a jiital su boobaa kon doo jël li nga xam ne kat moo feete woon ci ginnaaw nga féetale ko ci kanam bokk na ci sunu rakk yi yéen sunu rakk ñu baax ak sunuy doom yi léegi nag nga gis mu am ci yéen ñoo xam ne dañuy toog ci jataayu di eh, werante nangam nangam nangam nangam ci loo xam ne léegi-léegi duñ ci am dara par exemple di werante maa ngi jox fi ay misaal eh, mel na diggante socc nga jënd fii benn socckaay di socc wala nga ne pâte dentifrice laay jël wala ban moo ciy gën a baax léegi gis ñu toog si werante trente minutes une heure de temps deux heures de temps ci fekk dañu waroon dem jàngi dañ waroon dem liggéey ci dañu waroon dem jaamu ji yàlla mais ñu jël temps bu bëri def ko ci loolu wala ñu ne léegi lu mel na mu jalsatil istiraha kii ne am ah, man kat damay istiraha waaw ndax sax moo sax ci sunna yonente bi sallallahu kii ne am ah, man du ma ko def ndax am na xadis tamit yoo xam ne indiwu ko gis naa ulama yi ca xaramañ dañ ko def ak yu mel noonu ngeen toog di werante werante léegi-léeg mu jël temps bu bëree bëree bëri boo xam ne fekkee seen pas-pas na fekkee seen farata yi ngeen joxee des na waaye jël temps bu bari def ko ci loolu moo tax yaakaar naa comme yu mel noonu lu muy jël ci temps bi fexe ba yóbbu temps bi ci loo xam ne ay farata lay doon farata yu xaar te jamono jii du taxaw man yaakaar naa loolu suñu rombo lii ñu war a romb incha allah dina feeñal ni am na lu bëri dañ ci gaspiller suñu temps fekk am na lenn lu ko ëppul njëriñ ci ñun ci misaal yooyu le benn ñu ni awlawiyatul iman ala saairil ibadat priorité boo xam ne pas-pas am na ko ci lislaam ci dund l'islam ci gëm ko ci woote jëmale ci yàlla subhanahu wa taala loolu yaakaar naa ne yomb naa dëgg yomb naa xam lu tax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ko yàlla yónnee ñaata at la toog ci makka di wootee di tabax pas-pas moom yéen laa koy laal yonent bi sallallahu ñaata at la toog ci makka pour muy tabax pas-pas bi tabax ko te xam nga su ñu nee tabax da ngay commencé benn ñaar ñett ñeent bu ci nekk di tegu ci beneen bi bu mu ànd mu dëgër mu ne tabax ñaata at la toog foofu ci makka. Ah, fukki at yàlla ak ñett waxuñu fukki weer de waxuñu fukk eh, waxtu mais xool leen mbokk jullit xool leen sama doom yi fukki at yàlla ak ñett yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog ko ci Makka pour tabax pas-pas ci lislaam pour nit ñi gëm yàlla xam yàlla xam yàlla ci saxal ko xam yàlla ci xam eh, nuñ ko war a jaamoo xam yàlla ci jëf yàlla yi ak ifraadullahi bi afaalihi ifraadullahi bi afaali ibaadihi al isbaatu lillahi bi ma asbata allahu li nafsihi wa bi ma asbat lahu rasulu sallallahu alayhi wa sallam mooy al iman bil asma wa sifat sallallahu alayhi wa sallam fukki at yàlla ak ñett la toog ci makka pour mu tabax pas-pas bi ci xol nit ñi ko loolu wane ne gis ngeen priorité bu mag xam ngeen sallallahu alayhi wa sallam waxtam nu mu chéré nga xam ni kon jox na ko priorité bu mag lu ñuy jël ci loolu nag ci wootee jëmale ci yàlla fokk ñu tabax pas-pas bi tabax ko ci sunuy xol tabax laa wax de xam ngeen tabax kenn mënul xëy loo su nekkee benn milliardaire est-ce que mën nga xëy rek nga ta nga taxawal fii benn la bu cinq étages déedéet mënoo ko def da koy tabax teg benn brique bi ah def ci béton armé def ci nangam bi woo teg ci beneen ñu kuulee jël temps tabaxaat beneen bi jël temps ñu kuule waat ko jël temps tabax petit à petit ba keroog mu jeex. kon pas-pas bi noonu lañ ko war a tabaxee kon fokk mu jël temps bu mu war a jël ci dundu wootekat yi tabaxkat yi dundu waxuma la nag ndaw yi. kon loolu benn priorité bu mag a mag mag la benn montagne bu mag bu dëgër bu sax ci woote jëmale ci yàlla subhanahu wa te boobu suñ ko tabaxoo du dem fenn. ba tax gis ngeen fii ñu nekk ñu ngi quatrième étage léegi fii ci complexe Daarul Iman est-ce que su amul woon fondation bu dëgër ci suuf mënoon nañu fi toog léegi yaa y a deux ans bu ñu defee fondation boobu li déedéet mënul am su ñëwoon ñu ne ah dañu yàkkamti fondation bi jël na yaakaar na ñetti weer non dañu yàkkamti ndax dañu bëgg fii ñu dem kon du dem fenn moo tax insister nag. ci qabaaya al aqida al iman billah subhanahu wa taala wal iman bi malaikati wa bi kutubihi wa bi rusulihi wa bil yawmil axir wa wa bi qadaihi wa qadarihi priorité bu mag bu mu war a jël ci woote jëmale ci yàlla xanaa su wootee jëmale ci sa bopp de wala jëmale ci keneen wala ci beneen mbooloo waaye jëmale ci yàlla daal munoo commencé feneen fudul ci tabax pas-pas bi mu dëgër moo tax sallallahu alayhi wa sallam ñaar fukk yu mu dund ci lislaam gis nga fukki at yàlla ak ñett yépp mu jëmale ko ci tabax pas-pas boobule ah dafa def def ko jar dafa jar nit ñi xam yàlla borom bi subhaanahu wa xam malaaka yàlla yi xam euh, bésu pénc xam euh, ñi yàlla yónni woon xam téere yi yàlla wàcce woon xam li yàlla dogal li yàlla xam te mu neex ko yàlla bind ko bu jotee yàlla amal ko xam loolu nuñ ko war a xamee kon nañu xam ne priorité nit ki dinañoo demee ne ah man daal daaw bi wax affaire pas-pas daal day fay féewale nit ñi bon da ngay tooñ ay nit wala tooñ ay mbooloo déedéet du ñu dem foofu nañu commencé daal wax nit nañuy julli mais su fekkee nit ki julli na te tegul julli boobu ci pas-pas julli boobu yàlla soxlawu ko koor gi noonu la aj makka bi noonu la sarax bi noon la leneen li noonu la kon nañu xam ne ku bëgg tabax l'islam da nga koy tabax ci pas-pas boo xam ne dinañ ko tabax ci téere yàlla li yàlla wax ak li sallallahu alayhi wa sallam jàngale ak mag ñi baax ñooñu mu jàngale woon loolu ñu jàngale dëgg kitaab dëgg sunna ci ni nga xam ne noonu lañu ko déggee woon noonu lañ ko jàngale gis ngeen mbokk yi kon bii benn priorité numéro un waaw moom la ñëpp war a jàng jàngal ko sunuy soxna sunuy rakk sunuy taalibe ñëpp ñoo xam ndax yéen léegi ay borom xam ngeen ndax li nga xam ne jàngi ngeen ko di ngeen ko war a jàngale moo tax foofu nañ foo taxaw bu baax a baax ba xam ne loolu moo war a am ñu war a ko amee nuñ ko war a am ñaareel bi mu di awlawiyatul kayfi ala al kammi fi daawati ila allah xam ngeen ni jëf walla wax loo gis ci àdduna rek mun naa tuuti mun naa bari lu ñu tuddee quantité ak qualité quantité bi mooy bariwaay bi dafa gudd dafa diis dafa sore dafa yàgg gis ngeen bari na diis na yàgg na sax na ah, mbooloo bu tàkku bi bu ñu tàmbali boobu ba léegi ah, am na nangam y a des années des loolu mooy lan loolu mooy quantité mooy alkamiya mais du du loolu de yàlla subhanahu wa taala du kàmmee lan la soxla qualité bi liggéey bu am qualité liggéey bu baax wax bu am qualité jëf bu am qualité tabax bu am qualité marchandise bu am qualité loolu la nit ñi soxla gis nga marchandise chinoise yi léegi mën nga dem fii ci xaw ma nan euh, centenaire soo amee cinq mille francs nga dajale li chinois yi defar dajale ci bu tolloo ni mais mun nga dem ci euh, made in Japan loo xam ne japonais ñoo ko defar fekk soo deful un million du fa am dara lu tax loolu ne mun na benn benn rajo comme rajo bii nii léegi mun na rajo mun na nekk rajo boo xam ne chinois yi ñoo ko defar nga jënd ko 3000 francs fii ci marché mun nga am beneen rajo bu ko gën a tuuti nga dem munoo ko am ci cent 100000 francs japonais yi defar ko lu tax loolu te bu bii moo gën a mag mun naa gën a rafet sa ci bët waaye du loolu. qualité bi la kon ci liggéey wootee jëmale ci yàlla jàng lislaam màgg ci dañ ci war a seet lan qualité bi an nawiya al kayfiya naka la ah loolu ñu dégg ay quelques textes yoo xam ne yàlla borom bi subhanahu taala wax na ko euh, bokk na ci ittabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum tabaraka alladi biyadihi lmulku wa ala kulli cheyin qadir alladi xalaqa almawta walxayata liyabluwakum ayukum axsanu axsanu axsanu amala ittabiu axsana omar ibnu xataab radiallahu taala anhu bu mu yónnee amr ibnu al aas radiallahu anhu fële ci misra pour mu ubbi ji foofu mu jox ko ñeent fukk junni ci ay soldaar l'islam mu ni na ko yokk mu joxaat mu joxaat ko yeneen ñeent fukki junni ak ñeent mu ni gis nga ñeent yii nag ñeent góor ñii ar rajulu minhum bi alf kenn ci ñoom mu ngi tollool ci junne góor buy taxaw ci ci ci diin yàlla subhanahu wa moo tax mu ne 40 plus quarante plus 4 mooy ñaata quarante ma ne plus quarante plus quatre ñaata la mais moom nag nee na du loolu mu ngi jàpp ne 40 plus 40 plus 40 la est-ce que dégg ngeen wax bi muy ñaata muy 120 moo tax Omarul Xattaab radiyallaahu anhu nee na 120 soldats nee na loolu la yónnee ci moom ndax am na ci ñeent ñoo xam ne ku ci nekk mu ngi représenté junni góor benn góor buy représenté junni góor kon gis ngeen qualité bi wala déet gis ngeen qualité bi ah te yàlla subhanahu wa taala bare lu mu wax ci alquran mbiru bari waay wala mboolo walakin akthara annaas la yaalamuun walakin aktharahum yajhaluun nee na kam min fiatin qalilatin galabat fiatan kathiratan bi idnillah ah mu ne wa qalilun min ibadiya shakur wa qalilun ma hum kon giseel yàlla fu mu def aksariya mbooloo mi ñun ah keroog de mbir mi neexoon na de mbooloo bu takku moo fa ñëw ah seetal naa ko ci télévision bi ak moo bëree mbooloo non non du loolu de déedéet du kan du du waaye qualité bii la est-ce que mbooloo boobu ñu ngi ciy dëgg est-ce que ñu ngi ci ci ci njàngalee téere yàlla est-ce que ñu ngi ci njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que ñu ngi ci njàngale góor yi yàlla ñu ngi xam salaata mu jàngale leen ba bàyyi leen fi bàyyi leen téere yàlla ak sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam ñu nag fii Sénégal bari na li nit ñi wax waxu mbooloo ñu ne ah, daal lu seetaan ci mboolu nangam bi daal am na ñeent million wala ñu ne juróom benn million dégg naa ki mujj waxte rek mu ne am na fukk million ak juróom benn ñu ñëw ci eh, événement boobu de ma ne ah kon makk moom gis naa ne aj bi yu bëree ci at bi sax 3 millions duñ ko am ñun fale am nañu fukki millions ak juróom-benn xam nga loolu yëpp pour dañu bëgg wax ak nit ñi ci waxu waxu quantité du wax qualité. moo dañu xam ne lan moo am priorité mooy mooy qualité moo tax wa qalilun min ibadi shakur wa qalilun mahum unzur kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira loolu nag. la war a bàyyi xel bu baax sama rakk yi mu di lépp loo xam ne dañ koy jëf ci jaamu yàlla ci wootee jëmale ci yàlla ci njàng mi ci yëngutu bi ci métier yi fu ñu war a dugg ci àddina nañu fexee ba ñu am qualité bi li xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala bëgg même ñi nga xam ne dañuy jàng wax naa ko dem ci xutba bi ne rakk ñoo xam ne ñu ngi jàng français ñu ngi jàng anglais ñu ngi am yenn spécialité yi ñu jàng léegi-léegi nga dégg ñu ne ah man nag léegi daal ma bëgg daal comme yàlla may na ma gis naa sunna daal ma dem ci daawa bi bàyyi seen njàng sa ni ko fële ñu ne ndax loolu njàng tubaab la loolu loolu njuumtee la xam nañ ñun wax dëgg yàlla bëgguñu tubaab bëgguñu seen lakk bëgguñu seen culture bëgguñu seen jikko waaye ñu ñëw imposé suñu dëkk ba bàyyi loolu fii mais tey su fekkee ne ñu dañuy duñuy jàng tubaab ndax tubaab moom du jullit mais lu baree luñ ko munal suñu bopp suñu munalul suñu bopp nag dañuy mujj dem si ñoom te loolu day yàq waaye nag nañu xam ne soxla nañu suñu rakk yi nañuy jàng médecine nañuy jàng xarala yu bees yi nañuy jàng économie nañu jàng yooyu yëpp mais nag fekk nag tabax nañu li ma njëkkoon wax moo di pas-pas bu baax bi bu sell bi bu dëgër bi suy jàngee loolu nag ñu mën liggéeyal seen bopp liggéeyal seen réew liggéeyal seen seen seen seen i dëkk seeni i gox ba ñu mun yooyu yëpp kon développement bi ndax l'islam moom mooy développement l'islam dafa indi développement ci pas-pas indi ko ci xel indi ko ci xalaat indi ko ci suuf mooy mooy fii fiiha waaw l'islam ñëw fii pour que nit ñi bu ñu jàng wala bu ñu dem fenn wala nañu nekk fii rek di di taxawaalu kon loolu mbokk yi xam ngeen ne gis nañu foofu ne priorité bi nga xam ne moom la lislaam jox ah qualité kon lépp loo xam ne dañ ci yëngatu dañ ci dem dañ koy jàng nañu fexe boo ñu xool qualité bi su ko defee léegi xam ne loolu dina nekk suñu njëriñ nekk suñu njëriñu réew <coughs> ñetteel bi moo di awlawiyatul ilmi ala al amal waaw jiital boo xam ne xam-xam war na ko jiite jëf ndax xam-xam moom moo war a commandé jëf balaa nga jëf dara dafay dafa war a fekk nga jàng ba xam gis ngeen ne pas-pas l'islam yàlla subhanahu wa taala mu ne faalam annahu la ilaha illa allah na nga xam gis nga na nga xam na ngay jàng na nga dëgg ne amul kenn ku ñuy jaamoo ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala mais loolu dañ ko war a jàng moo tax li leen waxee sallallahu alayhi wa ko toogaloo ci makk fukki at yàlla ak ñett pour jàngale loolu moo tax nag balaa nit ki jaamu yàlla ci wax walla ci jëf wala ci xalaat xam nga yëpp dañ ci jaamu yàlla dafa war a xam d'abord dafa war a jàng dafa war a xam su fekkee nag jàng nga xam nga nga xam ni ngay jaamu yàlla subhanahu wa yàlla borom bi nee na qul hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa ah, ce que ñiy jàng xam ñu ngi mel ne ñi jàngul wala jàng nañu xamul déedéet bokkul moo tax nag ñu jox priorité dañu war a jàng ku ci nekk ci ñun war nga jàng lislaam pour nga dégg ko su fekkee ne yàlla may na pour nga dem ci daara yi pour nga dem ci jàkka yi nga dem ci borom xam-xam yi nga jàng ba nga xam ni nga war a jaamoo yàlla subhanahu wa taala su boobaa sa jaamoo yàlla mu baax waaye daal gis naa daal sama papa di def nii wala sama dëkkandoo bi wala sunu waa mbooloo wala sunu waa nangam sunu waa nangam déedéet dañ ko war a jàng war a ko dégg su ko defee nag nga jëfee ko ndax yàlla subhanahu wa taala bëggul n'importe quel jaamu yàlla déedéet yàlla def bëgg jaamu yàlla boo xam ne moom la bëgg te loolu balaa nga ko xam da koy xam ci njàng moo tax gis ngeen ne laay quran bu yàlla njëkkoo moo di iqra xoolal baat bi ni iqra yàlla wax ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi kon wane ni importance bi am ci ci jàng moo tax dañu war a jàng mbokk yi dañu war a jàng summa dañu war a jàng ndax da ngay gis lu bëree bëree bëri ci comportement ñenn ci ñun lu koy waral moo di ñàkk jàng moo tax alimaamul Buxaari rahimahullahu taala bawwaba fa qaala baabun al ilmu qabla al qawli wal amal nee na xam-xam maanaam sakku xam-xam ci loo soxla nag ci loo bëgg surtout ci jaamu yàlla subhanahu wa taala nee na loolu moo jiitu wax moo jiitu jëf ndax wax bi ak jëf bu ci nekk soo ci yéenee borom bi subhanahu taala yàlla fay la ci ndax ni ngeen ko xamee jaamu yàlla moo di ismun li kulli ma yuhibbuhu llahu wa li mooy xayri bi yàlla bëgg li yàlla soxla ci ñun li yàlla namm ci ñun ci wax ak ci jëf ak ci xalaat ak ci yëngatu ah moo di loo xam ne loolu kon moo di jaamu yàlla subhanahu wa taala te mu nekk nag jëf moo tax mu ne min al min al aqwali wal amal al zahirati wal batina yóbbu na amal al qulub wa amal al kon nañu xam ne kat dañu war a jiital jàng xam ci wax wala ci jëf kon loolu ñu góorgu ñi nga xam ne ñu ngi doon di jàng nañu góorgu bu baax jàng pour ñu xam ah ñi nga xam ne nag sabaruñu woon ci jàng dañu xam ne suñu bëggee jëf li neex borom bi subhanahu wa dañu dañ ko war a teg ci jàng ndax jàng moo tay xam te xam bi moo tax yàlla borom bi subhanahu wa taala kontaan ci ni ñeenteel bi moo di awlawiyatul wasatiyati wa tashaddudi fi daawati ila allah subhanahu wa taala li ma leen waxee woon sànq rek jëf wala wax boo gis dafa am li féete ci suuf mu am digg dóomu mu am li féete si kaw ñu xam nag jël digg dóomu ci wax ci jëf ci jikko ci jëflanteel loolu moo gën ëppul boo xam ne nit ki mun na ko ëppul ci ci ci ci jëflante te yàlla subhanahu wa loolu moo ko jàngale sallallahu alayhi wa sallam jàngale ko mag ñu baax ñi appliqué ko jàngale ko ñu yaatal ko yàlla subhanahu wa taala mu ne ci téeram bu tedd bi wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan li takunu shuhadaa ala annaas wa yakuna rasulu alaykum shahida yàlla subhanahu wa taala mu wax yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra mu ni yàlla borom bi subhanahu wa taala wa ma jaala alaykum fi ddiini min xaraj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yassiru wala tuassiru bashiru wala tunaffiru hmm? mu ne sallallahu alayhi wa sallam te ci xadisul buxaari diinullah yusr wala yushaadda diinu ahadun illa galabahu hmm? kon gis nga yi soo ko jàngate texte yi yépp lu muy wax moo di ci wàllu dund ci lislaam ci wàllu xalaat ci wàllu jikko ci wàllu jëflante ci wàllu jënd ak jaay yooyu yépp dañ ci war a am dañ ci war a nekk diggu doomu waruñ ci ëpp la ifraat wala tafrit waruñu bi nga xam ne dootuñ mënu dund ak kenn waaye waruñu wàcc ci suuf ba li yàlla digle woon ñu bañ ko jëf fii nag dama bëgg ñu dégg ko bu baax man dama ne laa ifraata wala tafriita ifraata moo di ëppul waaye wala tafriita tamit moo di eh, pour mu mu manqué déedéet maanaam dañuy terewul na ëpp maanaam dañuy teree mu ëpp waaye ñuy teree tamit mu manqué te loolu naka lay def kon diggu dóomu mu tolloo ci tolluwaay boo xam ne dañuy jàng diini yàlla subhanahu wa la ñu pratiquer ko ñu appliquer ko ñu dund ko ci suñu bopp ci suñu njaboot ci suñu societé ci suñu réew ci àdduna bi ñu wootee nag jëmale ci loola moo tax yàlla subhanahu wa gis ngeen laa yi moo wax yépp ngeen dëgg ko loolu la tey nag al wasatiya moo di al adl loolu mooy mooy maandu te su fekkee maanu nga ci loolu kon da ngay mun jëflante ak ñëpp képp koo xam ne mun nga ko wootee jëmale ko ci lislaam ah ci jëflanteel bu rafet kooku wax dëgg yàlla su yàlla ubbee xolam dana ñëw nga xam ne nag kenn munul forcer wala imposer kenn pour nga dugal ko ci lislaam kenn munul forcer kenn wala imposer kenn pour nga dugal ko ci sunna si mais lan ngay def da woote da ngay jàngale moo tax yàlla subhanahu wa taala wax yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim loolu mooy hidayatul irshad wa dilala wa taalimi wa tarbiya wa daawa na nga jàngale na nga woote na nga wone na nga defar ah na nga yar nit ñi ci yooru yàlla subhanahu wa taala bu jubbi waaye ba pare mu waxaat ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yacha gis nga mu nee na munoo nag forcé kenn pour nga jubbanti ko gis nga ñaari hidaaya bii hidaaya ne mën nga ko na ko def bee hidaaya nee na ci dara te kan la yàlla di waxal yonentam boo xam ne moom moo ko yónnee moo tax gis ngeen Abu Talib amu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi def na lu nekk pour mu dugal ko ci lislaam mënu ko amu ko yàlla mayu ko ko yàlla mayu ko loolu lu gën ci làmmiñam yàlla duggulu ko ci xolu kee dem na ba axir laxsa bu muy génn àddina sallallahu alayhi wa sallam dëgg yàlla métti ko loolu ndax mu ngi nar génn àddina te duggagul ci lislaam te dimbale na sallallahu alayhi wa sallam défendre na jàppale na ko def na lu nekk ci àddina xeex na ak moom ah sallaata ne ko yaa am qul laa ilaha illa allah kalimatun xaaj laka biha inda allah yowma alqiyama waxal laa ilaha illa allah waxal benn baat dong laa la ñaan sama papa nga waxal ma ko moo di amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala su boobaa man ma wax ak sama borom bu mais nag nanguwu ko ndax ñeneen ñu mu yooyu la ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko bàyyi te moom tamit mu ne buggul daañu wax ko ne dafa bugg dee rek mu tiit mu saali daal moo tax bëgg na sallallahu alayhi wa sallam waaye waxu ko sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax ko nekk mayu ko loola kon ñu xam ne yow mii wootee jëmale ci yàlla yéen suñu ndaw ñu baax ñi na ngeen xam munoo leen duggal kenn ci lislaam munoo leen defar kenn mu gis sunna yonente sallallahu alayhi wa sallam appliqué ko suñu sonn ñëpp gis ko wallahi mais nag lan nga war a def na nga na nga fàllu yow d'abord nga dund ci sunna bi dundin bu baax bu sell bu jaar yow na nga woote na jëfandikoo mooy yi la yàlla may yëpp ci njàngale mi ci woote bi ci xutba bi ci muhaabara bi ci xalaqaat yi ci euh, jataay yi ku yàlla indi nag mu ñëw ku yàlla indi nag après nga bàyyi ko ka ndax yàlla subhanahu wa yooyu nag nañu xam dëgg yàlla xalaat la boo xam ne war nañ koo xam bu baax su boobaa jarul di xuloo jarul di xeex te itamit nit ki wax dëgg yàlla kaddu boo nar a wax na nga xam kàddu bi lu muy posé ak fi nga ko yóbbu ndax yàlla subhanahu wa taala dafa ne udru ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidati l xasana ki ngay waxal nga xam la nga wax ak moom ci noo xam ne noonu lay déggee wax bi nga fexe ba mu ubbi xolam déglu la su ko defee nga wax ko kon yàlla mën na ko duggal ci xol waaye daal wax dëgg yàlla koo wax ak moom déglu rek nga xeex ak moom xuloo ak moom euh, bon bàyyi ko sànni ko dafay gën a sore rek te pourtant soo defoon nanka nga xam xamte ak nit ñi yàlla mën na laa baaxee defar nit ñi ndax lu mën defar kenn kon loolu mbokk yi nañ ci bàyyi xel bu baax loolu nag ci wàllu xalaat ah, ak ci wàllu euh, wax ak ci wàllu jëf bu ci nekk daal ñu fexe ba wax dëgg yàlla fu ñu mbokk suñu mbokk yi mbokk bopp yi sa papa ak say yaay ak say mag ak say ndaw ñoo xam ne yàlla may na la nga yàlla baaxee la nga tànn leen ci gëm lislaam ci dund lislaam fexeel ba nga wane ndax sallallahu yàlla ne ko wa anzir ashirataka al aqrabin waaye nag ba tey ci jikko bu rafet ci yërëm leen ci dimbali leen ci dëkk ak ñun dëkkuwaay bu rafet fexe boo ah, nga coloniser leen ci say jikko gis nga am na jikko nu muy rafete wallahi nit ñi dañ la bëgg boo leen waxee def leen ñu def boo leen bàyyi la ñu bàyyi nga bokk ak ñoom loo war a bokk ak ñoom soo leen tànnee daal nga dimbale leen jënd leen seen ordonnance euh, wala euh, dimbale leen ci can ñu denc soxna ku ci amul dara wala soo génnee asaka dimbale leen su ñu amee lu leen xewal nga bokk ak ñoom am nañu tudd am nañu ko génn àddina am nañu ko nangam nga bokk ci ak ñoom su fekkee loo leen war a ndokkel nga ndokkel leen soo leen war a jaale nga jaale leen bu mu des bu mu des bu mu des bu mu des benn damay tey ma wax ko ndax dëggal waxuma rek ñu xewle ay bidaa nga dem bokk ci ab ñoom déedéet ah nga ne damay rafetal daal damay wax suñu mbokk comme ñoom samay mag la ñu samay papa la samay goro la ñu samay nangam la ñu bàyyi ma dem ci seen ziyaare bi bàyyi ma dem ci seen eh, xaw ma juróom-ñett juróom-ñett fukk fan xaw ma lan ak seen ñett fan yooyu la ah wala seen mawlid bi wala seen nang déedéet loo xam ni yàlla tere na sallallahu alayhi wa sallam tere ko te muy bidaa soo ci demee ci nga bokk comme bokkuloo ci da nga leen di bàyyi séparé ak ñoom bu mu jeex ci wallu pas-pas waaye nag nga rafetal ak ñoom ci wàllu li ngeen war a bokk kon loolu mbokk yi dañ ci war euh, bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax loolu su amee rek kon mbir mi dina leer waaye daal yow ñu xam ne yow min ahli sunna nga nekk ku mag wala nga nekk xale wala nga nekk ndaw nekk soxna mais daal fu gaa yi xewle rek ñu gis la foofu yaa ngi fa taxaw ah ñu ngi la foo bismillah ñu ngi la foo nangam te xam nga man musuma gis kenn ci ñi bokk ci daawa bi ñu dem ci événement bidaa yi ñu yëkkati foo kaddu ŋaññe bidaa yi mënuñu ko kon loolu lu la fa yóbbu dëgg yàlla mais dama ne nga jëflanteel ak say mbokk mu gën a rafetee ci li ngeen bokk maanaam xew-xew yi ci wàllu social xew-xew yi ci wàllu yokkute ku foo réussir ku foo gagné ku foo am licence wala doctorat wala nangam wala ñuy jox ko benn post poste bu baax nga dëkkee leen nga ñaanal leen doo leen mën a dimbali nga dimbali leen nga bokk fi nga bokk boole sa bopp ci say mbokk loolu am na am na solo bu mag mbokk ñun ndax lu bari ñu ko perte rek fekk ñun ñoo ko tax nga ne ah man daal woote naa leen ci sunna bi nangoo ñun dama leen sànni fële non non na leen nax mu jaral la sa xaalis jaral la nga wàccee sa bopp encore waaw bokk soo munee def dara ci koñ bi nga bokk ci lu rafet nga def ko mun nga def fi benn set setal nga def ko sa alayhi wa sallam est-ce que nekkul moo wax ne euh, al imaanu bid'un wa sittuna fiha sab'una shu'ba a'laha qawlun wa adnaaha imaamatul adha anil tariq lu muy set setal nga xëy nga ne nga dajalee waa koñ bi yëpp surtout ñun fii si Kambaaw gis ngeen fii subhanallah nu mu tilime maara deytaan nga ne ñëweneen ñu def set setal bi nga jiitee set setal bi yow ñu gis ko ci yow nga ne ak ah, kii kat ndekete euh, mu ngi soxal mbiru environnement mbiru société bi mbiru nangam bu koor gi ñëwee am na loo mën a seddale ci nit ñi nga seddale ko suukar wa waxuma suukaru koor koo xam ne léegi aussi ay bidaa la wala ay mu faaxara déedéet wax dëgg yàlla am na ay fem yi ñoo xam ne xam nga sonn nañ ba nu xatab rek daaw woon dëdd ci guddi gi dafa doon dem ba bàyyi tëdd mu dugg ci koñ di seddale ay ceeb di seddale ay nangam yow mun nga def loolu nga fexe ba nit ñi jege la ñu jege daawa bi ndax am na ñu yaakaar sax du aat yi ñoom ay xaw ma ay lan dañ yaakaar ñun suñu yoon nekkul ci kenn amul lu baax lu ñuy yéenal société bi wala mboole non non non wax dëgg yàlla la am lépp loo mën a def lu rafet jëflante ci ak na nga def ko surtout nag ci wàllu jikko bi oyof su ko defee nga dund nga bokk fi nga bokk su boobaa kon wax dëgg yàlla kenn mënu la fa jël kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax mooy mën a dund ak nit ñi daal waaye daal yow nga mel na lu kenn xam ndax inna allaha yuhibbu rifq ah wa maa jaala allahu rifqa fi cheyin illa zaada wa maa nusia min cheyin illa shaana yow daal tal man na mu dugg daal ci sunna cent pour cent wala nga génne ko ilaa jahannama cent pour cent noonu da ngay def petit à petit benn ñaar ñett ñeent dëgg yàlla nga xam ne ak nit ñi wax naan ak ñoom nag dëgg yàlla tey nag yow foo tolloo rek nañu xam ci yow kat dëgg yàlla yow min ahli sunna nga ci sa wax ci sa jëf ci sa comportement ci say cëlil ah waaye nag loo mun a naxante ak nii pour nga xëcc ci leen xëcc ci leen bi jaarale ko ci wax bu rafet ci jikko ju rafet ci of bi ci jëflante bi ci mun a defal ni ñi njëriñ bu leen njëriñ nga defal leen ko nit ñi soxla nañu loolu juróomeel bi moo di awlawiyatu alfahmi saxiixi ala alxifdi almujarrad waaw ñu xam ni euh, dëgg dëgg xam-xam l'islam dëgg alquran dégg sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng pas-pas bu sell pas-pas ahli sunna wal jamaa nga loolu moo am priorité ci mokkal ko mokkal alquran kii daal ñun xaafid quran la macha allah dem nañu ba léegi sax kenn waxatul madaris taalim alquran al karim dañ ko wax madaris tahfid alquran al karim gis ngeen foofu xam ngeen saxaaba yi ridwanullah taala alayhim nu ñu doon jàngi alquran dañuy jël fukki laaya ñu mokkal ko waaye ñu jàng ko ñu jàng ko xam ko ñu jëfee ko ñu dund ko mais nag mën nga gis xaafil quran boo xam ne baat bu neex la macha allah su jàngee fi ñëpp yéeme waaye keroog bu mu génnee ci saal bi daal nga gis ko feneen nga gis ko feneen foo xam ne waroo gis sax ku jàngul waxuma la ko jàng alquran kamathali ximaari yaxmilu asfaara kon loolu nañ ci war a bàyyi xel moo tax ma ne école coranique xam ngeen bu njëkk dañu ne fulaan muqri wala allama yuallimu man taallam gis nga nusuus yi am ci wàllu jàng alquran yëpp taallam lay wax maanaam maa yushtaqu min kalimat al ilm mais léegi gis nga dem nañ ba école dañu ne tahfiz alquran alkarim fulaan muhafiz alquran dafa mel ne léegi nit ñi jàngatuñ alquran dañ koy mokkal mais ku mokkal alquran jàngu ko xamu ko dafay mel ne cassette rek nga jël benn cassette teg ko ci jël portable déglu ko loolu amul benn jeexital moo tax benn benn mbaam boo xam ne ñu jël ay téere yu bëri teg ci mbaam bi mbaam bi du ci jëriñ lu dul diisaay moo tax dañu war a dañu war a dañu war a fexe ba alquran bi sunna bi pas-pas bi xam-xam l'islam yi ñu dégg ko aussi même kuy jàngalee xam nga léegi-léeg ñun bokk na ci asalib euh, tarbawiya al mustaxdama galiban fi madarisina tarbawiya althanawiya wal i'dadi wal ibtidaiya fi lgaalib nurakizu ala asilati alxifdi akthar min asilati alfahm daf mel ni lu bëri daal ñun méthode bu ñuy jëfandikoo ci suñu examen yi ci suñu école yi élémentaire moyen secondaire dañuy gën a sukkandikoo ci xale yi nañu mokkal udkur kaza kam adadu kaza maanaam loolu la ñu gën a insister que bëgg xale est-ce que dégg nañ ko alxadisu fulaan tadkur alxadis maada fahimta min hada alxadis maa raayuka fi masalati kaza pour xale bi wax dégg naa li gis naa li xam naa li maanaam kayfa tufakkiru fi kaza maa huwa mashhuruka fi lmustaqbal lan nga yéenee defal l'islam fi lmustaqbal pour nit ñi xale yi ñu bàyyi leen ñu xalaat tuuti ngir yàlla waaye dañu mokkal rek mokkal mokkal mokkal wax ma nangam ñaata la wax ma am fan la jógee moo tax gis nga examen baccalauréat xukumi bi am nañu bëri am nañ ci jafe-jafe ndax loolu istintaajaat lay doon istimbaataat pour li nga xam ne jàng ko lan nga ci dëgg moo tax li ma leen laajee biir ko toujours na ngeen jiital dëgg comprendre waaye nag mokkal mémoriser. naa naa naa mokkal rek mun nga mokkal dara fekk doo ci jëriñoo dara. kon loolu mbokk yi dañ ci bàyyi xel bu baax ndax loolu danañu dimbali bu baax ci euh, euh, njàngale ni dimbali ñu aussi ci woote bi ndax ku jàng nga dégg da koy dund da nga koy appliquer soo ko dundee nga appliquer ko aussi mun nga ciy woote mun nga ko yaatu ndax xadis bi nga jàng xam nga ko moo tax léegi am na ci suñu yenn mbokk ñi jàng tubaab te ñu commencé jàng lislaam traduire yenn aay yi wala yenn kii am na ñu bëri ci ñoom léegi dañuy daanu ci loolu dañuy am traduction bi fekk loolu bokkul ak li yàlla wax ak sallallahu alayhi wa sallam ñu dem ba léegi léegi ñu xam ci dëggal te fekk dëgguñu ko moo tax gis nga dëgg comprendre li yàlla wax ak li sallallahu alayhi wa sallam wax hadis bi texte bi loolu la ñu war a jox priorité ko ah, euh, mokkal bi kese. juróom benneel bi moo di awlawiyatul amalil jamaai alal amalil fardi ci liggéey daawa bi surtout yenn jeunesse al falaax ak yeneen mbokk ñi ko fekkee dañu xam ne kat liggéeyu mbooloo liggéey la bu am barke liggéey la bu mun a jur lu bëri bu bari jeexital moo tax gis nga su fekkee ne yow nga soxla sa bopp mbooloo mi soxla la na nga war a bàyyi sa soxla bopp dem doxa ji yëngutu ji ci soxla mbooloo yi bu tafi man damay encouragé bu baax shabaab yi jeunesse bi pour que nañu adhéré ci mbooloo yi liggéeyal lislaam liggéeyal lislaam nag teg ko ci téere yàlla ak ci sunnu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mag ñi baax ñi dégg lislaam déggee ko ni ko yàlla subhanahu wa taala sallallahu alayhi wa sallam buggee ndax loolu dana tax boo wax yàlla mun nga jàppale liggéey l'islam bi min baabi taawuni alal birri wa taqwa wa taawuni alal birri wa taqwa moo tax dañu xam ne kat ndax mun nga liggéey sa bopp lu bëree bare bëri waaye liggéey mbooloo bi soo ci bokkul dana am lu bëri aussi loo xam ne tamit dañ ko perte moo tax ne maa ngi rafetlu bu baax dëgg yàlla xarakatu falaax dañu organiser euh, liggéey bu mel ni dajale ci ay mbokk ku nekk nga ñëw une heure de temps deux heures de temps joxe loolu après nga continuer sa liggéey mbokk yi nekk fii guddi ak bëccëg ànd ci ak yéen pour fexe ba njëriñ li ngeen am ko man maa ngi ko rafetlu bu baax baax di ko encouragé ak ñeneen ñi taxaw ci liggéey bu mel noonu dëgg yàlla ndax dina tax bu ñu dimbali nit ñi dëgg l'islam te l'islam nag nii yàlla kenn mënul jàng lislaam ci tool bi wala ci atelier bi wala ci kii bi su fekkee ne am na lu ak borom xam-xam yi surtout dëgg yàlla macha allah man gis naa programme bi mbokk ñu baax ñu bari jaar nañu fi wax dëgg yàlla kon loolu ngeen jàng ko fi mu war a am jeexital ci yéen soo leen jógee fi ci daara bii nag loolu mu feeñ ci yéen ku ci nekk ci yéen mu yóbbaale ko fu mu jóge woon ci sa kër ci ci sa dëkk ci sa école ah, fi nga bokk fi nga yëngatu ñi nga am nga ne ah man kat demoon naa ci daara bu falaa organisé woon fële ci si kàmbar ci daara bi nag jël naa ci nangam ak ñu tas ko loolu wax dëgg yàlla bu njëriñ bu baax ba kon liggéeyu mbooloo la ñu war a jiital ci liggéeyu kenn terewul nag nit ki na def ci boppam lu mu mun waaw nga def li nga mën en tant que fard en tant que kenn individu waaye nag mbooloo bi loo ci mën a def nga def ko dëgg yàlla ñun bëgguñu joxe misaal ci sunuy bopp mais xam ngeen ne bokk na ci yàlla subhanahu wa taala moo ko def du ñun daareen iman dem nañ képp te lay kattan yaa 17 ans léegi bu ñu ko créé demagul fu sore mais am nañu yéene yóbbu ko fu sore waaye loolu tardé lul dara ci li ñu war a jàppalante ak mbooloo bokk na ci léegi man ci falaax maa ngi jàngale foofu quatre-vingt-dix-huit ba léegi ak kulliyal afriqiya membre fondateur la dix ans laa fay jàngale kulliyatul yaamaar maa ngi fay jàngale ak falaax ba léegi dama woon xam ngeen léegi si mbir mi ni woon mais commencé nañu màggat mën a tuñ waaye bëgguñu ko bàyyi pour loolu yi pour feeñal ne liggéeyu mbooloo ñun ñëpp dañ ci war a bokk dañ ci war a jàpp mu lu bëri moo fii dañu ne wax béréb bu bu ndaw bi ku ko soxlaa ci mbooloo lislaam ñii liggéey ci lislaam bu sell liggéey lislaam ala kitaab wa sunna ñu jox leen ko ndax ñoo ko moom aslam kon man wax dëgg yàlla damay dooleel bu baax pour que liggéey euh, mbooloo jàppalante dimbalante surtout ñoo xam ne ñoo bokk dëgg yàlla ni ñuy jàng Arabie Saoudite wala jàng feneen euh, dund sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bugg koo tas fii ci Sénégal ak ci Afrique ñu war a am occasion bu mel ni ku nekk nga ñëw jàngale joxe conférence bi wax dëgg loolu am solo ñu ngi ñaanal mbokk ñi taxaw ci liggéey bi yëpp yal leen yàlla borom bi fay te dooleel leen yàlla mi ñu ñëpp sellal euh, juróom ñaareel bi te moo ci mujj moo di awlawiyatu amalil qulub ala amalil jawaarih xam ngeen ne yàlla subhanahu wa moo ñu sàkk ñun ñëpp yàlla moo jël xol bi def ko fii place yàlla jox ko liggéey bu muy liggéey waaye yàlla moo ñu baaxee ci yeneen cër yépp nekk ci sunu yàpp yàlla may ñu ñu am ñaari bët di xool di gis yàlla may ñu ñaari nopp di déglu di dëgg yàlla may ñu ñaari tànk di ci dox yàlla may ñu ñaari loxo di koy jëriñu yàlla may ñu appareil bu nekk ci sunu biir nga jël ñam bi nga lekk ko ah sama mbokk séeréer ni ñu buggee mburu lekk mburu bi lekk euh, yàpp lekk ginaar lépp dajale ko ci biir bi soo ko dajalee foofu ba paree nga naan ndox euh, jël sa fruit jël sa désert ah, soo paree nga tëdd nelaw waaye yàlla may la appareil bi nag commencé liggéey di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey ñam boobule appareil bi yàlla subhanahu wa taala wax ko li ci baax jëlee ko duggal ko ci sa yaram li ciy yées li ciy des mu dajalee ko ci benn béréb bu ndaw dencal la ko foofu bu jotee ah, mu yónnee ci benn message demal nga génn ji li nga dem ci toilette bi akramakumullah nga génne ko foofu nga ne yàlla alhamdulilah bi alamin may nga ma ma lekk ba suur waaye alhamdulilah rabil alamin may nga ma bu jotee ma génnee loolu dem naa génn na soo amul loo lekk da ngay jooy soo lekk ba pare génnoo loolu tamit da ngay jooy gis ngeen loolu yàlla dajale ko ci suñu yaram waaye sallallahu alayhi la wax nee na ab taqwa haahuna ragal yàlla gi fii la nekk ci xol bi sallallahu moo xam ala wa inna fi ljasadi mudghatan ida saluhat saluha aljasadu kullu wa ida fasudat fasuda aljasadu kullu léegi gis nga cer ah, cër bu ndaw boobule te mu nekk fii cër boobule moom mu am priorité lu muy liggéey ak borom bi subhanahu wa taala ndax moom ni yeneen cër yi amee liggéey di ci yëngatu di ci jaamu yàlla moom noon la amee cër yu muy yëngatu di ci jaamu yàlla gis nga xol bi moom mooy gëm ngëm bi fan la nekk fi ragal yàlla gi fan la nekk fii fii mooy tax nga ragal yàlla te ku ragal yàlla subhanahu wa taala yeneen cër yépp ragal yàlla xol bi bu ragalee yàlla ànd ak yàlla subhanahu gis nga làmmiñ bi du jëw du saaga gis nga nopp yi du déglu lu xaraam du déglu musique du déglu leneen ah gis nga euh, ñaari loxo yi du ñu dem di jël alal ju lewul tànk yi du ñu la yóbbu fu yàlla tere moo tax nag amalul qulub wa ma asabaha ixlaasu ixlaasu alibadati fi amali alqulubi huwa damaanul qabul inda allah subhanahu wa taala balaa yàlla di la nangul sa jaamu yàlla yàlla xam ne ne kat jëf yi fii ci xol bi jub na lu tax ngay julli yàlla la lu tax ngay woor yàlla la lu tax ngay azaka yàlla la lu tax yàlla la ngay jàng yàlla tax ngay jàngale yàlla lu tax ngay woote yàlla la tax ngay wax yàlla la lu tax nga taxaw yàlla la lu tax nga toog yàlla la yooyu yëpp yàlla la fii la jógee moo tax soo loolu su amee yàlla subhanahu wa taala nangul moo tax salaatu nee na gis nga xol bi su baaxee rek li des ci cër yëpp dafay baax moo tax gis nga ah al iman al taqwa al xushuu al al tawakkul xusnu avan ah, yooyu yëpp ci xol bi lay nekk xol bi mooy gëm yàlla xol bi mooy ragal yàlla xol bi mooy yaakaar ci yàlla dong yàlla kese xol bi mooy mooy ne na nga ñaan yàlla na nga nga ko kon gis nga liggéey yooyu xol bi di ko liggéey jëf yooyu xol bi di ko jëf yëngu yooyu xam yu xol bi dana ci yëngutu loolu lañuy ñu war a jox priorité que li nga xam ne mooy feeñ ci cër xaw ma ndax dëgg ngeen wax bi ah ndax loolu su fekkee ne am na tey gis sallallahu mu ne innama al amalu bi niyaati ayna makaanu niya al qalb wa innama li kulli mri li nga yéene moom kese moom dong ngay am ci jëf ak wax loo yëndoo fi wax loo yëndoo fi yëngutu loo yëndoo fi ak sa dund yëpp lépp loo xam ne nag jógewul ci xol bi yàlla subhanahu wa taala ko nag moo tax al ixlaas ah moo tax ixlaas yàlla subhanahu wa taala nga sellal jaamu yàlla waaye amalul jawaarix moo di la ak zahira gis nga julli raka bu gudd bi jàng alquran baat bu ñu dëgg si kaw li nga war ci kaaba bi li nga daw ci safa wal marwa li nga génnee nga saraxee ko yooyu yëpp su fekkee mu ngi yem ci zahir te jógewul ci xol bi wala lu ko yëkkati pour ñi ne ah diw kat macha allah ku baax la ku tabee la diw ku jàmbaar la ci xare bi ci jihaad bi ñu ne diw ku nangam la da nga da nga wax pour nit ñi wax diw wax nañ ko jeex na ba ñëwee ci yàlla subhanahu wa taala mu ne ki yóbbu leen ko safa mu ne ah yàlla man nag maa ngi génn sama alal ma mayee ko saraxe ko man nag maa bokkoon ci xare bi man nag maa ngi doon jàng alquran yàlla ne da ngi defoon loolu li yuqaala wa qad qiila fa yusxabu la wajhi na jahannam aadina allahu wa iyyakum minha moo tax gis nga euh, jëf ak wax bu jógewul ci xol du jëriñ boromam dara moo tax mbokk jullit ñun ñëpp nañu saafara suñuy xol nañ ko defar nañ ko yóbbu ci docteur <clears throat> soo leen jàngee ibnu qayyim al jawzi rahimahullahu taala dëggal fu mu fu mu tarkiis moo di foofu xawoon ci saadatu daarayni wala euh, madaari jël salikin da gis ne wax dëgg yàlla mu ngi bëgg a saafar xol yi xam ne bu saafaraa xol bi wér kon cër yi li ñuy liggéey yépp dafay jaar yoon dafay jub yàlla daf ko noonu waaye bu bu bu xol bi feebare te gis ngeen yeneen yeneen yoo xam ne fol euh, xol bu feebar moo ko jëf moo di alxasab alxeq albax ak yu mel noonu loo gis nit kii mu réussir rek nga am problème soo gisee ko am oto bu rafet yére bu rafet euh, ku dëgg euh, alquran wala nangam nga am <laughs> nga am problème maanaam am kiñaane boo xam ne daal yàlla mu natt ko léegi-léegi nga bañ nit ki te fekk du daal ah kon yooyu yëpp ci xool bi moo tax wax dëgg yàlla nañ xam ne amalul euh, alqulub hiya laha awlawiya kabira ala amal jawarih moo tax suñ ko xamee ñun ñëpp dañuy jéem a góorgóorlu bu baax pour ñu saafara suñuy xol yàlla yàlla dimbali ñu saafara suñuy xol boo xol yi wér kon foofu euh, juróom-benn yooyu laa bëggoon euh, jaar ci ak yéen léegi kon ndénkaan yi laay joxe rek ndax euh, une heure de temps bi yaakaar naa ne mot na ba pare kon tawsiyaat yi juróom ñett tawsiyaat dama koy wax ci wax bu gaaw rek benn bi al iltisaam al amali li fiqi al awlawiyat fi l xayaati taalimiya wa daawa al ijtimaia moo di li nga xam ne priorité yi ñu wax ñu fexe ba ñu dund ko dund ko ci suñuy eh, jàng dund ko ci suñu woote la ci borom bi subhanahu wa taala dund ko ci suñu vie sociale suñu diggante ak suñu bopp suñu diggante suñuy mbokk ak suñuy dëkkandoo ak suñuy liggéey lool fexe ba loolu wax dëgg yàlla mu law ci société bi yëpp ñaareel bi mooy ak tarkise ala al imaani wa arkaani wa masail ah, fahman wa atiqaadan wa daawatan ah moo di ñu ñu insister bu baax jàng pas-pas l'islam bu sell lu toog loolu sallallahu alayhi wa sallam fukki at yàlla ak ñett ci makka pour tabax ko ñun ñëpp nañ ci góor def ci kémta lay kattan pour ñu tabax pas-pas boobu ñu xam yàlla subhanahu wa taala xam arkaanul iman sitta xam ko nuñ ko war a xamee thalithan al ihtimamu binnawi wal kayfi lal kammi wa dalika bil ixlaas wal mutaabaa ah kon ba tey ñu bàyyi suñu yitte bu baax ci eh, qualité bi hmm, eh, ak naka la loolu nag naka lañ koy defee moo di sellal mu di sellal jaamu yàlla sellal suñuy kaddu sellal suñuy wax la suñuy jëf ba pare nag roy ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom dong ndax soo ci téere yàlla mun na laa dimbali ah balaa nga jëf dara nga nga consulter sa xol ba nga xam ne lu la yëkkati ngir yàlla nga xam kat yaa ngi teg sa ñaari ta fu sallallahu alayhi wa sallam tegoon ay ay tànk rabian al wahyu wa adamul iqtiraari bil kasrati aw bi kasrati alhaalikiina daaliina aljuhaal waaw ah, mooy nga am xel ah, buy xool di gis nga bañ a ne ah man kat gis naa mbooloo male daal mbooloo bu mag la fale mbooloo mi takk daal foofu la mbir mi nekk ñoo ko yor déedéet ki ko yor moo di ki ko teg ci téere yàlla ak ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax mbooloo bi mun na bëri fekk walakin aksara naasi boobu moo xoon leer eh, xaamisan talabul ilmi shar'i al asili min alkitabi wa sunnati bi fahmi salafi salih mulazamati a wa duati alamilin waaw mooy sakku xam-xam xam-xam l'islam xam-xam bu sell bi boo xam ne ci téere yàlla sunu yonante bi ci dëgg boo xam ne salafu sal dëgg nañ ko téere yàlla ak sunu sallallahu alayhi wa sallam ah, nga jegee nag borom xam yi surtout wootekat ñi nga xam ne dañuy jëf ba pare woote nga am ci ñoom ala nga ñeme leen nga jege leen su ko defee wax dëgg yàlla yàlla mën na la jëm te sadisan tatbiqu manhajil wasatiyati fi nafsi wal hayati al usriya fi mujtamaka al waaw manhaji wasatiyya boobu moo xoon mooy digg doomu bi nga fexe boo nga mën a dund ak euh, sa mbokk mën a dund ak sa dëkk mën a dund ak sa société سابعا العناية بفهم القضايا العقدية والفقهية والاجتماعية والسياسية وعدم العجلة في النتائج waaw nga bàyyi xel bu baax ci euh, li nga jàng ci xam-xam bu aju ci pas-pas wala ci fiq wala ci social wala ci même ci politique nga wax ci li nga xam yem ci nga bañ a yàkkamti résultat ah ndax ñu léegi-léegi dañuy yàkkamti boo waxee dara daal nga gaawantu pour tey rek na nga am résultat yi wala su dee loolu nga sànni ko ثامنا واخيرا الانضمام الى الجمعيات الدعويه وعضويه العمل الجماعي لخدمه الاسلام والمسلمين mooy nga bokk daal ci liggéey mbooloo liggéey mbooloo yi ndax mun nga ci jëriñ lu bari mun nga ci jëriñoo mun nga ci jëriñ kon loolu laa bëggoon daal jaar ci ak sama rakk yi mbokk yi yàlla yàlla subhanahu wa taala may man ak yéen dëgg ak topp te yàlla nangul ñu yàlla defal ñu sunu jataay bi jataayu jaamu yàlla bu yàlla nangu aqulu ma tasmauna astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafur rahim wa sallallahu ala nabina muhammad wa alihi an la wa atubu ilayk jazallahu cheikhana xayral jaza ñu ngi koy sant wax dëgg yàlla ci tënk bu mu tënk ak dimbali suñu waxtu bu leen fàtte dañ fàtte dañuy tàggoon trente minutes mais ci li mu jeexal léegi man maa ngi xool sama montre mu nekk ay trente sept kon presque vingt minutes ci suñu retard ci trente minutes delloo nañ ñu kon loolu lu am solo macha allah mais ànd ak loolu yëpp dañu doy lëmb kon dañu ubbi baabul asila ak musaarakaat yi luy toll ni dix minutes rek minutes pour ba tey mun a en fait waroon nañu xaw a tànn ñu ko ku am lu muy laaj incha allah taala ñu laaj ko ko. ginnaaw nag loolu duñ ko sante gërëm ko ñaanal ko yàlla subhanahu wa taala wax dëgg yàlla li ñu doon yaakaar moom am nañ ko mooy dinañu ifaada bu baax a baax bu leen fàtte tamit li ma waxoon sànq ngeen boole ko yéen ci seen asila pour moom nañu wax dara ci carrière am ngeen boole loolu ci seen asila pour mu mun ci xuus bu baax a baax wa jazakumullahu xayran wa akramahu waaw bismillah fadl اسمه ابو ابو جوب جيد ومن منتقى ها ارفع صوتك الحسن جاي ها para el أنتن في الوراء ما عندكن سؤال waaw jërëjëf kon baax na ñu tàmbali incha allah taala kon ci Abu mu def lu gaaw. salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum. Oustaz bi man sama question ne la man comme fu mu waxee ñu ngay nekkal comme ay waajur yooyu ngay si lu baax comme ba bañ a ay daal su nekkee yow élève yaa ngi daanaka indi nga te yow xam nga ne suñuy dem si ay bidaay soo àndul ak ñoom mën nañ laa yàqal sa jàmm kon foofu ma koy laaj ci moo war a dem. deuxième si la ko ñoom bu njëkk bi beneen bi dañ koy réserve ba fin. incha allah incha allah barkallahu euh, loolu léegi léegi mën na indi. jafe-jafe indil ko xale bi waaye ba tey xikma bi rek gis nga xikma bi subhanahu wa taala moo di wadu shey fi makaanihi laa'iqa bil munaasib maanaam uh, cas bu nekk ci yooyu wax dëgg yàlla dañ koy uh, saafara ci xam ko maanaam d'abord ñoom war nañu xam ci yow ne yow xale la boo xam ne da nga leen bugg te ormal nga leen te yëg nga leen waaye ba tey nga jàngal leen ni yow yaa ngi commencé jàngate sa njàng ci nga gis ne kat war nga topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo commencé di leen expliquer loolu te si nga ñaan yàlla subhanahu wa taala ndax kat nga sellal ñaanal leen ñaanal sa bopp yàlla yàlla ubbi seen i xol man xam naa ci cas yu bëri yoo xam ne bu ànd ak xikma yàlla mun na ko saafara am na benn mbokk bi fi doon jàngale ndax yooyu jege na cas bi benn jàngalekat la woon fi te mbokk bu am niveau bu baax ndax jàngi na Mauritanie ba am na fa licence mu ñëw ci man mu ni ma man de sama bopp mu ngi nii tudd su ma ko nuyoo sax du fay su ma ko jëndalee am euh, xar mu tabaski sax du ko lekk ndax neen ak wahabi yi waaw def naa lu nekk man ko man dama bëggoon ñu am rendez-vous man ak yow dem ci sa bopp mu ne ma wala après nag mu xam ban heure la papaam toog ci seen kër ma ànd moom ñu dem ñu fekk papa mu toog ci piliaan ñu nuyu ko man ma toog ci suuf papa ji ne noonu toogal ci seen man a bàyyi lu toog ci suuf dafa am benn lu ñu laloon ci suuf ma toog ma ne ko ah man digga dama ñëw rek pour nuyu la pour ziar la kii sama xarit la sama rakk la liggéey moo ñu boole waaye wax dëgg neex yàlla sama rakk la comme li ma doon dégg nag muy wax ci papam nee na dafa bugg papam dafa jeex ci papam papam ku nangam la ah yooyu mu doon wax ci yow daal man man daal foog ma ñëw daal ziyaara papa jooju la daal bu wax la daal yow sa doom daal na nga ko ñaanal ndax gis nañu ne lu muy ak lu mu ah yëpp nee nañ ci yow la ndax yow yaa ko orienté yaa ko yaa ko ah, dëgg yàlla nee na daal moom xolam dafa fees <laughs> mu gën a papam mu ne ma ah mu ne ma mu ne te xam nga ne wax dëgg yàlla loolu moo tax mu jaral moom ñu ziyaar la ma gis ni nag wax dëgg yàlla mu commencé ubbi kanam di ma xool di xool xale bi ah <laughs> gis nga ma continuer di wax nag boo li ma yàlla mayoon ma jël ci dara aussi jox ko ko ma ne ko lii maa la ko ziyaar ma gis tamit kanam yi gën a ubbee ko léegi man kon léegi ñu ngi dem gis nga ci fan yooyu yàlla may ko doom moo wax euh, euh, doomam bii nga xam ne fii lay jàngalee dafa bëgg man ma ñëw mu tuddal ko doomam te pourtant am na ay sëriñam ñu bëri te bi mu ñëw fekk naa fa ay sëriñam ñu bëri man maa tudd doom ci yàlla xam ne ne billaahi wallaahi taala ci gàttal léegi mu ngi sama kër bàyyi na doomam jàmm amatul benn problème léegi xale yi léegi lu mu ko jox mu mu jël ko pour man mbir mi daal dafa laaj tuuti man nga bañ a yàkkamti moo tax léegi nag su fekkee ne dañ la imposé ñu ne yoon bi daal fokk nga ànd ak ñoom te yow mënaguloo waxtaan ak moom mun nga ànd ak moom ci yoon bi waaye nag boole ci di waxtaan. mais am na ko dëgg yàlla am na li ma dëgg borom xam-xam yi sax nee sa laal wax na nangam wala wax na nangam wala ndax ñu bëri ci ñoom dañu xamul te dañu leen nax aussi. waxuma sa papa mais ñu bari ci suñu parents yi ñeneen ñii dañu leen nax ba pare coloniser leen di leen jariñoo pour hadiya yooyu pour tool yooyu pour am am boobu ñuy joxee sëriñ si ma ne gën soo waxtaan ak ñoom waxtaan bu tee fexeel nag boo ñu yëg ne yow kat seen doom la bëgg nga leen yaa ngi leen bëgg jëriñ te yaa ngi bëgg lislaam si ndax léegi ne suñu jikku mu woo koŋ toog ak kenn ci àddina lii di yàkkamti bi dana ko def yaakaar na daal soo ko defee benn ñaari ñett yooyu aussi nag waxtu saxar nga defaru bu baax ah yëkkati sa ñaari loxo wane ko sa borom yàlla allahuma aslih li abi wa aslih li ummi wa aslih li ana bi nafsi nga ñaan yàlla subhanahu wa taala man yaakaar naa ne yow ak man ak ñeneen yëpp yàlla mën nañu defal tawfiq boo dañuy mujj reconnaître ndax ñun kat bëgg nañu l'islam bañ a guddee rek am na kenn ko xam ne dafa jàngi jaamel islam yi ba taxarruj papam tijaan la papam ne du am soxna lu dul mu jàgg jàpp wir wir du tijaan def na lu nekk papam nanguwul après mu wax ma ko ma dem bi ma demee nag wax ak papa ji lu bëri bëri mais papa ji nangu ndax nee na daal loo mun wax duma la nangu te duma la gëm ndax yow yaa ko duggal ci loolu walla yéen a bokk pas-pas bi ma demee ba mënut am ci moom jàmm ma dem ci keneen ku mu bokk pas-pas beneen tijaan bu mel na moom ma yónnee beneen tijaan boobu ci moom beneen tijaan boo xam naa ne xaritam la ñoo jàngandoo te ñoo ay arabistan lañu ñoo jàngandoo Maroc ñoo jàngandoo nangam ak nangam te kooku dëgg yàlla dafa am qualité bu dëgër ci ñun beneen tijaan boobu moo dem mu convaincre ko mu ni soo leen bàyyoon ñu jël seen soxna ma feeñal leen li nga doon jëf yow Maroc après mu tuubal kooku mu bàyyi ko kon mbir muy daal am na ay pexe te nag aussi que xale yi ku am jafe-jafe yu mel noonu li ma waxoon sax da jege mbokk yi ñoom Ahmad Tidiane ñoom Abou Bilal Thiadji Darame ak ñu mel noonu ngeen jege leen wax leen seen bopp feeñal leen ñu may leen ay xel may leen ay xalaat xelal leen ndax ñoom du ñu leen xelal ngeen sori seen parents yi ndax wax yàlla kenn warul sori même su fekkee ku yéefeer la sax war nga fexe boo ni ngay rafetale sa diggante ak moom kon loolu nañ ci bàyyi bu baax. macha allah. jazallahu cheikh alal ijabati wa jazahullahu ala idail amsila aydan déet keneen si mooy Muntaqa xalaas waaw Alhasan Ndiaye salaamaaleykum salaam rahmatulah. comme ñu tàmbalee kàddoom insiste na si wàllu tawhid dañuy gis ni tey soo xoolee Sénégal dafa am programme bu tuddee PES wàllu ñaan ñu koy wax franco-arabe kon soo xoolee ñoom seen biir euh, programme daanaka wàllu tawhid bi daf siy des léegi nag euh, wàllu daal soo xoolee pas-pas bu jiw daal dafa des. Hmm. léegi nag ndaw ñi man nga leen di conseillé si wàllu daal façon njàng bu bees boobu. kon nan la ñu orienté woon. macha allah barakallahu fiik la <coughs> dégg la question bu ama am solo la soxal nañu ñun ñëpp benn li ma leen njëkk wax programme boobu programme bu baax la lu tax moo xam ne programme bu baax la programme la boo xam ne dajalee na ñu ëpp ci ñuy jàngalee lislaam ak ak arab ci ay école parce que mun nga mun naa wax ne man ci laa bokk mouvement al falax ci la bokk ibadu rahman ci la bokk azhar ci la bokk waa kokki ci la bokk waa yu baree daal mais loolu bu bëggoon nañ ko amee fii Sénégal kenn xalaatul woon loolu mën naa am moo tax wax dëgg yàlla bu ñuy euh, defaraat programme yi du lii moo ñu gënal mais quand même loo xam ne maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu waxuma julluhu de kulluhu laa wax maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu soo xamee fu ñu jege ci taaw kii président euh, Senghor ak Abdou jàngalekatu arab ci Sénégal sañoo sax bind bisimilah rahmaani rahim ci classe bi mais ñu jógee foofu ñu ñëw ba léegi ñu tolloo ci éducation religieuse léegi ñu yoonal ko Sénégal am programme boo xam ni turu tawxid bi rek mu ngi ci lii dañ ci war a sant yàlla bu baax. donte nag du fii la ñu war a arrêté kon am nañu lii ba pare ñu duggal ko ci suñuy poche dañu war a jël beneen engagement bi fexe ba loolu ñu defar ko avant ñu koy am na am na pexe boo xam ne moom la ñu bëri léegi ci école yi di am comme par man suñu terminal fi ak terminal Pikine Al Falah kon maa ngi jàngalee foofu tawxiid di ko jàngalee fi gis ni ñun tawxiidu euh, kitaab al wasatiya al wasatiya aqidatul wasatiya li cheikh al islam ibni taymiya moom la ñuy jàngale suñu demee ba mu des nag euh, benn weer dong ñu jàngale tawxiid boo xam ne mu nekk ci programme gouvernemental man man maa ko appliqué bi non ñu bëri ndax dañuy gis ne dooyul waaye ñu am ko de aussi gis nga ci élémentaire bi rek boobu ma gën a baax ndax boobu aussi ñu ko defar moo di ñu bëri ci mbokk du yi ñoo ko defar ba pare jox ko gouvernement bi te yooyu soo xoolee boobu bii sax moo gën a am jafe-jafe tuuti kon ba tey loolu di gën yàlla doyul aussi tamit euh, ci wàllu mu mu aamil ñu ko jox dafa tuuti ba tey mais nag suñu jàppee ci lii rek suñu gënee waxtaan dem fii ak at yooyu yëpp mun nañ yëngatu bu mu yokk avant loolu di am nag ñi taxaw ci ecole yi ñoom ñoo ci war a góorgóorlu te am na leneen dinaa fi wax benn misaal euh, abu abu bilaal mu jéggal ma <coughs> démb maa ngi doon wax ak benn expert mu wax ma benn lafta dëgg yàlla dama ko rafetlu toog ba guddi di ci xalaat mu ni ma moom de gis na ne mu jàmma Thierno Mahmoud Sow fale ci yombol ñu ngi def juhud yu am solo ci njàngaleen nee na ma am na mu laa xasa mu ma gis am na ñaari xale ñu ma xam dañu juddoo ñu yar leen ci mouridisme dem boo ñu tolloo xaw ma terminal wala classe bu koy jege mais dañu gis ni waa mu jamaa dañu jàngale bu baax ñu bàyyi seen mouridisme boobu dem jàngale fële ci école salafia nee na loolu jaaxal na ko moom moo tax nee na kon soo moytul ñu ngi xam ne ahlu na ñooy ëpp lu ñuy jëriñu ci programme bu bees bii la pour yooyu benn misaal gis nga lii na muy sëj baahir boo xam ne mu jamaa mu ngi koy joxe yàlla yàlla borom bi subhanahu wa taala dolli mbokk yi tawfiq kon loolu wanee ne kat ñu ngi ci yoon bi nag bu ñu yàkkamti ndax ku ñu ne woon amul sañ-sañ sax bind bismillahi rahmani rahim ñu jox la alquranul karim yaa ngi koy jàngale jox la assira nabawi jox la alhadis jox la alfiq jox la at tawxid ci Sénégal xam ne su ma waxee at tawxid ci Sénégal am na foo xam ni kenn ñëwul sax tudd fa tawxid ñu jox la ko ci programme boo xam ne borom turuq yëpp dañ koy jàng ñun war nañ sant yàlla de dëgg yàlla ndax yaakaar naa ne ñun ñoo ci ëppalee quand même waaye nag incha allah dañuy fexe ba leneen tamit mu yokk ko ci. jasallahu cheikh xayral jasa nantaqil ila mbayka salaamaaleykum salaam. amiin. amiin. ma xeet bi ñuy daje ci ci ñun euh, caakaan daal léegi nag yow boo wax ne ñoom ñu wax na ñu daje caakaan comme si yow mii doo fi am xaalis a rafetlu يستدلون إيه على الضلال إيه لكن ما فهمت الوجه الذي يريد هو يستدلون على هذا على بدعهم ah d' accord waaw waaw waaw na waaw waaw waaw na waaw dégg na waaw d' accord ñoom suñu waxee loolu wax leen loolu amul ndax laa tajtami ummati hal ijtamaat al umma ala dalala lam tajtami maanaam est ce que xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dajee ñoom ñëpp ñu dëppoo ci bid'a wala ci dalala loolu amul te loolu du am ba mukk dafa am nag ay mbooloo dëgg yàlla yu mel ne Sénégal dina am mbooloo bu takku ñi bokk ak ñi bokkul te aussi nag gis nga mbooloo yooyu soo demoon boo bugg koo xoolaat c'est maanaam nga sëgg mbooloo yooyu le du ñëpp ñoo gëm loolu de am na ñi ko gëm waaye am na ñu dem pour jaay seen marchandise am na ay invité am na ñu dem sama mbokk seen ñu dem lekk yi ak nag ndax dañuy toog ci at bi yëpp lekk ñu yàpp ba suur kon dafa am foo xam dañu fay dem pour lekk nag yooyu le waaw mu ngi ñaareel bi aussi lu ñu am tamit comme médias yi ñoo ñoo am fii doole surtout gouvernement bi dañuy jàppalante gouvernement bi su lu ñu soxla ñu jàppale leen gis nga ñoom moom gouvernement bi jàppale leen kon yooyu yëpp mu ngi am waaye nekkul na ñu fa dem ñëpp dañu gëm loolu waaye tudd ma fenn nag ah yéen a ngi xool jazakumullah xeyral jaza nantakel ila abdul qadir summa cheikh jaxma salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Cheikh bi ñu ngi lay siyaare di la ñaanal yàlla yal na yàlla dëggal taxawaay bi yàggale suñu kanam ndax am na ñu mel ni yow. gannaaw loolu gannaaw bu ñu xamale yaa ji ci dàmb bi dafa am suñu mbokk yoo xam ne xëy na ci àll bi ñu dëkk ñi dañuy jógee fii dem am ñoo xam ne dem nañ ba ñëw yàlla jox leen aw yow yaa ji mais fa nga xam ne fa ñu dafa am lu ñu fekk loo xam ne taxawaay loo xam ne ñoom seen seen aada dafa doy waar benn mosquée moo ko nekk wala jàkk yu ndaw yi comme jàkk yi nga xam ne mooy jàkk yu gàgg yi ñoo ko nekk kooku nga xam ne dafa dem ba ñëw am na euh, màqale ci xam-xam euh, loolu moom ci awraweer la bokk mais xam ne moom la ci jumaa bi neexul nga xam ne nii ñoom bu demee ci jumaa bi mën naa am nga xam ne moo jiite la nga xam ne moom lay jëfandikoo moom lépp te li nga xam ne ñoom moom la ci léegi boobu naka lay <coughs> eh, man léegi-léegi comme ab jàngalekat laa xëy na léegi yaa dix huit ans bon damay bëgg di joxe ay misaal yaa ni am fi la xay dégg yàlla li nga wax de man bi ma jógee Madina Nabawiya ma ñëw fi Dakar maa ngi njëkk dëkk fale ci Jaksa bu ñëwee li ma njëkk xool est-ce que koñ bi am na jàkka wala amul gis ne li fa génn a jege daal mooy benn jàkk la boo xam ne benn baraak la ab baraak la moo fa gën a jege après ma dem foofu fekk timis la woon fa dugg si biir julli ak mbooloo mi wax dëgg la bi keroog yaakaar naa am séeréer la war a doon xaw ma ndax jàng na Fatiha wala saar rek la jàng <laughs> dëgg yàlla te ma jógee Madina na ma wéy mubasharatan man waaw yi moom naka lay demee bu alors ma julli ak moom timis ba pare dem sama kër julliwaat timis bi. gée jot tamit mu ñëwaat la même chose moom tamit mu jiite waat léegi mbir mi nag xam ngeen dafay métti wax dëgg yàlla waxuma la nag leneen loo xam ne dañ ko ciy boolee waaw ma toog xalaat bu mu yàgg ma ne waaw est-ce que du ma am beneen jàkk ma xool koñ bi yëpp gisuma beneen jàkk ma ne bàyyi la rek ma dem après ma ñëwaat nag euh, yaakaar naa timis la fekk waa ji ñëwul bu mu ñëwul nag ñi fa nekkoon xam naa am na ku may gis xamante wuñ mais xëy na mu gis mandarga xëy na kii ab taalibe la wala yooyu daal mu ne ma bismillah après man ma jiitee timis la woon wax dëgg yàlla ma jàng alquran li ma yàlla funloo ba ma jàngee ba pare ma yëg ni ñoom bu ñu pare ñu nuyu ma nuyu bu sell ñu yëg daal xëy na am na quran daal bu ñu dégg comme ni ñuy wax xëy na quran bu bees la wala yooyu ba alors que bi ma demee xam naa nag élimaan bi ñoom ñu wax ko man yëguma dara ndax demee ñu ne rek ma fekk ko mu ne cheikh bismillah bismillah ma ko doon fàttal yow yaa élimaan bu noonu bismillah kon yàlla def mu jiital ma boobu ba keroog ma jógee foofu wax dëgg yàlla ma bàyyi mimbar bi complètement lu dul su ma fa nekkoon man nag ma gis ne am na benn juhd bu mu war a def comme yàlla def ma bokk ak ñoom nit ki fu mu bokk dafa war a bokk wala fu mu dëkk dafa war a bokk waxoon après ma gisee ak ay mbokk ñi ma xam ci koñ bi ma ne ah jàkk ji de gis naa yéen ay commerçant ngeen ay sénégalais wax waxuma benn naa ay sénégalais commerçant ma wax leen jàkk ji daal nu mu mel ku ci nekk ci defar na këram bu mu rafet te cité la Rochette boobu jamono ñu bëri tabax nañ tabax yu rafet rafet rafet dëgg yàlla bi ma leen waxtaan bi ma waxtaan ak ñu nangul ma am na yaakaar naa ñeent nit ku ci nekk génnee cinq cent mille francs ñu dajale ko ñu dem ci élément bi ma ne ko dañu bëgg tabaxaat jàkk ji comme boobu ab barak la woon léegi comme jàkk séeréer la woon ñu dem ak jàkk tukulóor kon yàlla borom bi subhanahu wa taala def ci tawfiq walla ñu tabaxaat gis nga léegi weeru koor ñëw ñu def fa euh, salaatul qiyaam kon boobu noonu la yàlla defee mbir mi dëgg yàlla ba léegi mbokk yaa ngi foofu parce que élément bi mu ngi foofu sax waaye ba léegi bëreetul lu muy jiite moo tax bu man mbir mi dafa laaj rek ñu def ndànk ñu muñ yenn yi daal boo mbir mi dafay mujj nekk ci loxo ñu baax yi su fekkee ne yaa ngi fa soree te amaguloo li nga bëgg mais su fekkee bàyyi nga ñoom tamit nga dem fale wala di leen sànni xeer wala nangam ñu ne xale bi dafa nangam léegi soo moytul ñu génnee la dëkk bi wala ñu toroxal la wala soo moytul li nga waroon am doo ko am mais pour man su ñu defee ndànk daal dund suñu pas-pas di naxante ak ca façon boo xam ne dañu am ci ñun kóolute su ko defee mbir mi delluwaat ci ñun mais nag foofu aussi foog ñu sellal. bul fexe daal yow lu tax nga bugg daal jiite pour nga nekk élément na fekke daal li nga yéeneel yàlla pour que yàlla subhanahu wa taala diine am mu nekk foofu la pour man ba tey suñu defee ndànk insha allah yi lu bari yàlla mën na ko delluwaat ci mais nag ñu jegee leen bañu bokk ak ñoom lu ñu bokkul ak ñoom lu ñu mën a bokk ak ñoom bokk ci ak ñoom bokk jàmm bi bokk am-am bi bokk sutura bi bokk wax dëgg yàlla màggal euh, mag ñi waaw koo ci gis wax dëgg yàlla nga ormal ko xale bi ku baax la xale bu bu bu barke la xale bu koy dëgg ci mag ñi rek moom dana am ci mag ñi lu mu bëgg. barke la. jërëjëf li docteur wax am solo la ñu bàyyi ci xel bu baax ndaxte dem si joxe ñaari misaal rek xam naa waxtu bi yàgg benn bi am na ñoo xam ne gis naa ne ci benn koñ wax dëgg yàlla dina kon ay xale di jàng xam na benn jàkk sunna bi ñu doon julli mais bii seen càkk koñ la. bee jàkk bi jàkk sunna la ñun ñoo ko moom kenn dañoo di xëccoog ñun boobu suñu naan jàkk sunna mu ngi fay ñun yi buñ ko defee jàkk boo xoolee ñun rek ñoo fay ñëw ñoo koy fréquente benn benn alhamdulilah léegi ñeneen ñu ngi ñëw ci jàkk sunna yi sant yàlla léegi duñ feer del alhamdulilah parce que xam nañu léegi xitaab bi nu muy demee duñ fay ñëw mais li ma bëgg wax mooy jàkk yi ñu fi fekk ñu fekk suñu bàyyi ak suñu maam yi bu ñu si jàppee suñu bopp ay jàmbur lañ nañ si liggéey ba ñu changé li fa te loolu mën a nekk la oustaz li mu si joxe léegi misaal la beneen misaal bi mu si joxe man gis naa ay xale ñoo xam dañu yaru ci kon jàngee fa mais mag ñi ñëpp xam nañ ñi ñoom li ñuy gëm ci wàllu seen bidaa ñi gëmuñu mais nag ci wàllu jëflante ñun jëflante nañ jëflante du rafet léegi gars yi dem nañ bàyyi dem nañ ba nga xam ne ñu bëri ci ñoom ñii jiitu nañ ñii ñu ngi feebar yàlla na yàlla yor léegi lan lañ def ñi fa nekkoon nga xam ne saful awal sax dañ leen ko doon siis ñoom di dellu ñuy dellu ginnaaw léegi ñoo ñëw ba egg léegi ñoom lan la ñu doon ut am na ay yenn mag yi dañ doon jéem a jéggaani ñeneen mais waa koñ bi nee na déedéet ñii suñu waa fa war a jiit léegi te ñooñu ay sunni la ñoom ñoo ñooy jël jàkk yi doon sax yenn bidaa yi ba tey a ko xeex ñoom 100 pour cent mais lu bëri day changé kon li mu wax muñ ak jëflante ci rafet lu ci am solo beneen misaal bi may jox man gis naa ñi nga xam ne seen maam moo doon jiitu war a def defar jàkk jooju mais man dama waxtaan ak ñu am na jàkk bii nañ ko bàyyi mais jàkk jooju ba tey dara changé wu lu tax ndaxte kenn fu nekk fa di taxawal sunna kon yàgg ci béréb di taxawal di di ci di ci def loo mën ba ci kanam nga xam ne dina mën a changer te mun fa def bayaan mun fa def kalima nga xam ne sax da ngay toll fi nga xam ne yow yaay nekk imam amaana ñoom dañu naan jàkk ji jàkk koñ bi yëpp mais mun nga fa def sa darsu kenn mënatu la ko xeñ ndaxte imam nga te dañ la fal ñu bind ñu ne diw imam la da fay jiite jàkk jumaa jiite fa lépp kon loolu changement bu mag la sant yàlla ak saahid mooy bu ñu bàyyee jàkk yi rek ñu ne seen jàkkal déedéet loolu du xidma daawa suñu amee suñu jàkk sunna kenn du xëccam noonu mais yeneen jàkk itam nañ def def fa daawa ba nga xam ne daawa dina gën a tasaaroo loolu laa ci bëggoon a salaamaaleykum kon dañuy jublu ci Cheikh Diakhaté salaamaaleykum salaam allahumma salli waaw ah, man benn question laay laaj comme si bokk na si yi nga nekkoon na commencé mooy élargir wax yi seen yéene nag mooy sànq seen wax commencé organisé buñ buñ seetloo ay daan xale yi ñoo daan saagal ñoo daan saagal seen wax ñoo daan réer seen wax quoi mais léegi buñ demee ba gis na léegi bëree am na fi doole débat yeeg yooyu noonu léegi dem nañ ba gis na mag ñi léegi dañuy sànq seen wax si garanté parce que bëri bu ko déggee waaye loolu pour ñu jëlee ko bi lan moo koy nan lañu def pour jëlee ko. asalaamaaleykum. naam barakallahu fiik fi abnaina wa fii alan euh, yi ba léegi sax am na ñu des ci sànq seen waxtu ba léegi euh, shabab yi xam ne borom baraade yi ba léegi ñu ngi am ñu ngi am ci koñ yi ñun suñu fenêtre fale fu ñu dëkk parce que du ñu mën a tëdd wala nelaw avant deux heures du matin di jot foofu la shabaab yi di ak seen baraade seen ataay yooyu wax naa ko démb xaw ma lan la ñuy def seen ataay yooyu la ba léegi am na waaye terewul nag am na mag ñoo am na mag ñoo xam ne ba léegi ñu ngi ci loolu surtout nag li gën a métti mag boo xam ne mu def carrière am ba jeexal ko fil qiila wal qaal dem fii dem falee di jëf lu kenn xamul ba fi nga xam ne léegi jeexal na liggéey foofu la waroon quand même mu góorgóorlu wuti sa jaadam dem si jàkk yi pour am mujj bu rafet waaye def nañu seen carrière ci li yàlla xam doyal bu pare léegi ñu am nag ay grand place surtout ñun suñu koñ bi ak moo bëree grand place te mag ñi toog foofu di werante affaire mbërël xam nga naka naka dëgg yàlla loolu pour man wax dëgg yàlla mandarga la bu baaxul ci mag mag boo xam ne nga nga jeexal sa àddina ba pare li nga dese woon aussi war a ci quand même delluwaat ci yàlla yàlla mun ne laa nangul mais ñu nekk ci lu yaakaar na bokk na ci li ko waral nag moo di àddina bi ni mu bindooree gis nga rajo yeeg télévision yeeg média yeeg eh, nit ñi ak Sénégal fii aussi dañu bëgg wax dañu bëgg discussion bu dul jurul dara toog fii toute la journée di wax di wérante fekk du leen jural dara pour man nag mag ñooñu sax ñun mën nañu leen fexe ñu baaxe leen gis nga ba bu kenn am yes soo jaaree li nga war a jaaree te fekk leen seen kër wala ci mbedd mi nuyoo leen bon mu am sabab surtout jaar ci sabab yi sababu yi ma doon junj sànq loolu am na solo soo amee sa ñaari dërëm sax si sutura nga ba ko benn benn benn mag boo xam ne soxla na ko pour daal dama bëgg xol yi ubbeeku su xol yi ubbeeku ni mën nañ ci def euh, taxawaay boo ñu am ci dara waaye nag wax dëgg yàlla bokk na ci mandarga bu ñuy tax ñu am yaakaar ci jeunesse bi. moo di jàkk yi léegi jàkk yaa ngi fees dell ci ay xale macha allah daf mel ni léegi ñoom ñoo gën a bëri léegi si jàkk yi gis nga fii léegi ajjuma ñu suñuy jëli daf ma jaaxal dafa mel na soo xaajee nit ñi ñett xaaj ñaari xaaj yi ay ay ay xale la loolu day wane alhamdulilah l'islam mu ngi ci jàmm l'islam baa ngi ñëw l'islam mu am avenir comme loo tax benn xalaatkat nee na l'islam dafee na def mel ne benn ballon soo ko jëlee nga door ko ci miir bi soo ko dooree ndànk nee na day wadd ci suuf waaye soo ko dooree ak doole dafay ñëwaat ci yow kon l'islam daf mel ne lu ñu gën a xeex l'islam l'islam mu gën a sax gën a am doole gën a jaaxal ñëpp gis nga te adduna bi ñëpp mënuñu euh, dajaloo ci benn xalaat bu dul xeex l'islam xeex l'islam moo dajale américain yeeg europe yeeg saay-saay naar yeeg ñoom ñëpp ñu dajale pour bugg jeexal l'islam si kaw suuf gis ngeen keroog li xew Gaza gis ngeen Gaza du benn état amuñu benn armée amuñu benn xaalis amuñu benn dara waaye ay ñoo xam ne gëm nañu l'islam mu jaral leen ko ndax du du ci uruba mais gis ngeen àdduna bi yëpp xeex ne leen mais ni leen yàlla mayee ndam bi effectivement rey nañu fa ñu bëri mais loolu terewul dañu leen dañuy leen di faagaagal jeexal leen mais yàlla nangu ko kon ñun ñu ngi am yaakaar bu man wax dëgg yàlla ci yéen yéen sunu ndaw ñi yéen suñu rakk yi yéen suñu doom yi surtout nag di sax ci lu mel ni li ma waxee woon sax liggéey mbooloo bi dëgg yàlla am ci seen temps ñëw ci jataay yi mel ni toog ak mbokk yi di leen déglu jege borom xam-xam yi jege du at ñi nga xam ne nag dund nañu boo ñu ngi màggat ci liggéey bi alhamdulilah bi alamin ko loolu suy am rek incha allah lu ñu lu ñu neex la ñu gis bi idnillahi barakallahu fi jasallahu xayral jaza kon Aboubacar moo ci mujjee woon Aboubacar daal bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba ginnaaw ñuy sant yàlla subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, asalullah subhanahu wa taala an yajziya hada cheikh xayra jaza suura assalaamu aleykum بارك الله فيك امين امين جزاك الله خير على الدعاء ونحن جميعا ندعو للشيخ جزاك الله خير الجزاء kon li des mooy question bu ñëwoon sànq te ñu bëggoon mu leeral wax ni tuuti ci wàllu carrière li toll ni trois minutes rek insha allahu taala ñu tënk ko ci jazaahullahu xayran ngir loolu doon yóbbal ndaw ñi yakuna zaadan li sabab li tax na si insha allah waaw fadal sa wallaay loolu moom xam naa soo leen ma mënoon jéggal daal ndax euh, yàlla man euh, maa ngi muslu ci yàlla maa gën a euh, néew doole ci mbokk yi taalibe yi yeeg wootekat yëpp yàlla mais li may sant yàlla rek moo di ñun yàlla def ñu juddoo fale ci jaataar te ñu fekk euh, sunuy papa ak sunuy maam ñu ngi doon dund ci njàngalee bi def ci lu ñu mën ñoom itamit léegi yàlla yàgg yàlla bëggloo ñu xam-xam nag depuis ñu nekk foofu le moo tax sama dund musul nekk dara nag lu dul ñaan yàlla daal ci wàllu xam-xam yàlla ubbil ñu ci bunt pour ni mun a ci jëriñoo mu ne ci jëriñu sunuy sunuy mbokk la sunu réew moo tax ñu jàngee foofu ci Fuuta bokkal fa alquran amee foo ijaza ci maxraj imaam Naafi après ma ñëw fii vingt mu am musaabaqa bu ñu doon def fii pour li Gharb Afriqiya juróom-ñett pays yi nekk fii ci Afrique occidentale yaakaar naa ñu ngi nekkoon ñett téeméer ñu def fi musaabaqa bi pour ñu waroon ci jël juróom benn fukk ñu yóbbu leen Mauritanie institut supérieur des études coraniques mu bokk ci yàlla may ma tawfiq ma nekk ñaareel ci ñu tànn woon ci musaabaqa ñu dem Mauritanie jàngee foofu ci mahad boobu lee ñaari at ñu taxarruj boobu ligue islamique mondiale moo yore mahad boobu lee mahad mutaxassis fil qiraat wa i'daad al mudarrisin ñu taxarruj même tartib bi mu ñu taxarrujee ma ne fi tartibi thani ñoom ne dañu bëggoon taayin ñu nekk eh, al muqriin di jàngalekat al quran wate ci Afrique occidentale mais man boobu jamono ma ne bëgguma jàngale dama bëgg dem jàngi te boobu yàlla def Mauritanie sama papa bu tuddoon Abdoul Aziz Sy rahimahullah moo nekkoon imam grande mosquée bu Nouakchott sama papa la sama xarit la ñoo bokk lépp ndeysaan alors boobu yàlla mayoon na ko Mauritanie am relation yu dëgër foofu amal amal na ma daal ay occasion yu bëri ci wàllu liggéey ndax amoon naa kayitu Mauritanie amoon naa national ak yooyu ma gis ne daal du du du liggéey mais dem jàngi moo tax ma fexe ba di yëngatu jokkool ak euh, université yi université yi nekk ci réew arab yi mu def ci daaw ba sonn nag parce que yaakaar naa def naa ñaari at di bind université loolu bëgg naa ko wax sama xale bés bu nekk mu bind lettre université bi ma mos a dégg rek bind naa la lettre pour bëgg dem jàngi mais ma toog ñaari at awma ko après ma dégg mu saabaka fii ci Dakar dañu def ci mahad islami institut islamique bu dakaar pour jël juróomi nit ñu représenté Sénégal ci musaabaqa boobu am fële ci Arabie Saoudite muy musaabaqa musaabaqatu Malik Abdul Aziz Dawliya mu jóge Mauritanie ñëw bokk ci musaabaqa bi yàlla may ma nag tawfiq ma bokk ci juróomi xale yooyu ñu tànne woon boobu jamono ñu war a dem Arabie Saoudite boobu c'était en 1988 ñu dem Arabie Saoudite bu ñu dee bokkoon na ci Aliou Ndaw bu Kaolack bokkoon na ci Saïd euh, Sow ku yore léegi benn daara fële ci yaakaar naa Euh, fan la amee daal fii ci en tout cas ci côté Géejuwaay bon ak ñeneen bu ñu demee ñun juróom ñu bokk foofu yàlla may ma tawfiq si ñu jël ma ci juróom yoo yële ci musaabaqa bi foofu ci Makka ñu jox ma minha bourse pour ma jàng ci université islamique bu Médina dañu doon naa jàng ci collège Qur'an karim comme maa ngi génne mahadul qiraat mais fekk aw ma woon shahada thanawiyya waaw loolu mu nekk gàllankoor ñu ne ma léegi ni may def daal moo di def institut secondaire bi nekk si jaabel islamique dama def foofu ñett at amee shahada fanweer bi tax dërëmtiyaas ma dugg collège charia foofu ci jàmm si mais ma taxarruj ba taxarrujee nag ñëwaat fii Sénégal ndax xam naa ne boobu ma gis ne commencé naa màgg war naa ñëw Sénégal pour ma réaliser dara ci sama réew. waaw boobu sama soxna ñu ngi àndoon foofu ma gis ne moom comme xaafi la ñu bëggoon ñëw ñu créer benn projet pour ubbi benn daara pour xale jigéen yi c'était en 1997. ñu ñëw fii Sénégal créé daara joojule ma suubatil maaruf jafe-jafe yu bëri ñu lee benn kër bu ndaw fële ci eh, jeg saaw bu ñu ilaane wax ñëpp dañu bëgg ubbi daara surtout xale yu jigéen ndax dama gis ne boobu jamono ñu jàngalee jigéen yi bëriwul te ji am na xàq pour ñu jàngal leen parce que ñeent ndongo la ñu am ñeent ndongo nit ñi ñëw waaw yoonu nga dem jàngi mënta jàngi Arabie Saoudite ba pare ñëw bu koy ñeent ndong ah ñu ne naa dem école normale pour nekk professeur ñu ne naa dem nangam ma ne ko déedéet damay tàmbali su fekkee dëgg la ci man rek yàlla moo moomal boppam liggéeyam wax dëgg yàlla ñu commencé ñeent xale yooyu bon alors que ñu nekk ci yaakaar naa benn weer ñaar boo juróom benn weer ñeent dong fekk boobu nag wax dëgg yàlla location bi mu jafe ci ñun loolu loolu loolu commencé jaay sax sunuy téere sunuy yenn appareils yi pour mu def alors boobu nag la yàlla ubbi bunt bi nit ñu commencé di indi seen doom bu ñu amee yaakaar naa benn at ci xale yi jigéen yi ñu am yaakaar naa ay fanweeri xale ñu ubbi nag xale yu góor ndax ñu bëri dañu doon ñëw pour ubbi seen doom yu góor ma ne noonu man damay insister ci xale yi jigéen yi boobu soxna aji bint ca aussi mu ngi commencé boobu jamono alors ko bu ñu defee yaakaar naa benn at ci jigéen ñu ubbi beneen daara pour góor ñi mais góor ñi bu ñu ubbee yaakaar naa ñaari semaine kër gi fees muy ñaar kër xam nga nii ñu ni ñu sawaree ci jàngal seen doom yu góor allah yahdi ba léegi meluñ leen ci jigéen yi waaye yàlla def comme muy ñaari kër xalaat na su mu boole woon ñaari kër yi yaakaar naa 1998 laa boolee eh, jël benn kër boobu boole foofu ñaari nekk foo nag petit à petit yàlla subhanahu wa taala aussi 2000 eh, la créé franco arabe yi ba tey ci guy daara ji boobu taxaw na 97 18 19 ba 2000 ma kër yi faral ko arab daanu imaam bi foofu ci beneen eh, beneen immeuble yàlla def na ñu nekk ci daal ba léegi ñu ngi kurtu kurtu daal te bokkoon na defoon na benn xutta ashariya loolu ma wax ko ndax waxuma ci awlawiyaat yi mais bokkoon na ci fekk fekk ma bëggoon eh, gàttal rek bokkoon na ci li am njëriñ ci sunu dund ñuy def xutta planning sunu liggéey ndax loolu wax dëgg yàlla danañu gën a jàppale bu wax man bi may jógee Arabie Saoudite ne woon naa danaa dem ci maydaan bi liggéey pendant dix ans pour ma delluwaat ak ci njàng mi pour amee sama master ak sama doctorat yàlla def noonu ndax 96 laa génnee jaamel islam yi ba 2006 laa dem euh, Soudan euh, bindu foofu def sama master pendant deux ans 86 7 8 après euh, commencé doctorat bi 88 ba 2011 yooyu nag terewul ne maa sama liggéey. damay dem Soudan de temps en temps gisee ak sama mushrif taxaw ci liggéey bi ba yàlla subhanahu wa taala def ci li ñu mën ah ñu ngi tolloogum fii mais nag am nañu yéene nag dëgg yàlla am na ñu yéene yàlla borom bi subhanahu moom moo yore lépp moo xam lépp waaye surtout bokk na ci yéene bu nu am euh, xam ngeen léegi Sénégal amaguñ université ba léegi ci si te loolu dafa wax dëgg yàlla dafa xaw ma dafa ruslu laa ko mën a tuddee ci nguur gi ak ci ñun Sénégal fu mu toll ci xam-xam fu mu tolloo ci l'islam nu mu mel Sénégal ba léegi benn université amagul Sénégal loolu warul am waaye ne comme ñu ngi ci yoon yàlla def na alhamdulilah kulliyal afriqiya maa ngi fii am na njëriñ lu bëri ci dëkk bi kulliyatul amar commencé na mu ngi jàngal suñu doom macha allah tabarakalla te ñun bokk nañ ci ñaari kulliya kulliyatul euh, pir kulliya daawal islam mu ngi foofu aussi moo ngi dem mu ngi jàngale ay doomi réew mi mais ñi ngi am xalaat ñun incha allah pour ubbi benn kulliya kulliyatul tarbiya mashru la waaye sañ naa leen ko wax ndax bokk leen waaw ah, ñu ngi ci nag ñu ngi ci yëngatu ñu ngi am yaakaar xëy na fii ak ñaari at wala yooyu ndax am na fu ñu bëgg jaar te ñi nga xam ne ñoom la war a eh, dimbalante nangu nañu projet bi ba pare waaw lu mu des daal fu ñu war a jaar ñun ak mbokk incha allah ñu ngi ci am am na ci yéene pour wane rek wax dëgg yàlla daarul iman foofu la tàmbale ci ñeent ndongo yu jigéen lu tax ma wax ko ku am yéene ci yéen ubbi daara bul am benn hésité xanaa lenn muy dëgg ci yoore muy Sénégal muy Kaolack muy Dakar muy Kaolack muy Touba muy euh, Casamance euh, Fouta képp ku am projet ci yéen mën nga ko commencé étudier nag bokkoon na ci li ma doon def bi ma nekkee sax ci euh, institut secondaire fale ci Médine su ma toogee ci sama classe su fekkee am na jàngalekat boo xam ne du ma jëriñoo ci moom lu bëri xam ne jàngalekat tollawul dama am sama kaye boo xam ne ci laay bind samay afkaar ah man kat suma paree dana ubbi benn daara jàngal xale yu jigéen ñi bu yeggee jàngal xale yu góor ñi bu ñu paree ci alquran jàngal leen xam-xam bu ñu amee mun nañu dem ba saane mun nañu dem ba jaamia yooyu maa ngi am kayit bi ba léegi pour wane leen yéen da ngeen war a commencer tabax seen i projet ah pour ci seen avenir fi ngeen toll ndax yàlla mun na génnee ci yéen ñi ñi mën a yoree suba ay université te fi ngeen tàmbalee jaar foofu dëgg yàlla foo la ñu tàmbale woon jaar te ñun sax Euh, yéen ñu chance ndax ñun bu ñuy jàng ay mag lañ man bi may def bac maa ngi am 30 léegi ñun suñu ndongo yii fi samay ndongo yii fi ñu ngi defee bac ci 16 ans ci 17 ans ci 18 ans fekk mokkal nañu alxuraan ba pare mais am ko ndax euh, examen bi passé ñun suñu terminal 40 la woon 10 yi amuñu 18 ans moo tax bokkuñu ci bac officiel bi gis ngeen ne ku def bac ci 30 ans. nga am ndongo bu am bac ci 16 ans kon xam ngeen ni am na lu soppe ko ci liggéey bi waaye nag ba léegi liggéey bi pour man demagul fu sori ni ngi xaar ci yéen ginnaaw yàlla ñi ngi xaar yéen lu ñu commencé yéen ngeen jël ko yëkkati ko def lu ëpp lu ñu def ndax l'islam yi yàlla na ko yéen yàlla ngeen ngeen defal ko Sénégal sallallahu ala nabina Muhammad jazallahu ache xayral jaza kon léegi benn question lañ koy laaj est-ce que mos na génn Sénégal liggéey feneen mus na génn Sénégal ci wàllu jàngale liggéey feneen. ah d' accord <laughs> waaw effectivement demal naa Gabon wa ma adraakum ma. macha allah <laughs> dem sama dem Gabon bi aussi wax dëgg yàlla am na durus. macha allah donte temps bi bëriwul. li ma yóbbu Gabon dinaa leen ko wax. ndax bi ma tàmbali daara ji 97 ma dem ba 98 fekk jafe na ci man. metti na loolu wax dëgg yàlla. location bi jafe-jafe bi nangam te mu baax dama dëgër bopp ma su ma xamee daal lii yéene bu rafet la su ma ciy jàppee sama yoon nekkul ci sama bopp sama yaay sama xarit waaw léegi nag après wasaratu shoun islamien bu Arabie Saoudite ministère des affaires islamiques bu Arabie Saoudite ñu jël ma ñu nommé ma pour ma war a dem Gabon jiite foofu benn euh, mahad bu mag mu tudd mahad al malik Fahd al islami institut islamique roi Fahd mu nekk ci Port-Gentil ñu am benn jumaa ju mag bu ñu fa tabax ñu tax yéen ma ma nekk foo élément léegi bi ma waree dem nag fekk daara ji commencé na boobu yaakaar naa maa ngi war am fukki ndong ak euh, ñeent yaakaar na wala yooyu la ma woo paara yi ma ne ah man de dañ ma nommé ma war a dem Gabon liggéey foofu noo leen gisee mbir bi ñu ne noonu ñoom bëgguñu ma dem ndax lu ñu commencé gis ci liggéey bi bëgguñu ma arrêté ko ma ne noonu bàyyi leen ma dem ndax mbir mi dafa métti dafa jafe ah aw mu te xay yi sani laa fi at <laughs> <laughs> ma ne dinaa bàyyi fi sama soxna ko mun na leen yore mokkal na alquran mu yore leen man ma dem ka moo def fa même su dee eh, juróom benn weer li ma am indi ko pour dooleel daara ji boobu laa déggoo ak yow bàyyi fi sama soxna bàyyi ko ci daara ji muy continuer liggéey bi ma dem ka moom effectivement ba mu ko defee eh, juróom juróom weer wala juróom benn weer boobu sama salaire eh, huit cent mille francs la woon léegi ma ne kon damay bàyyi démissionné li ma am ci juróom benn weer ma indi ko dooleel daara ji boobu euh, gabonais yi bugguñu ma dem ndax commencé na tabax relation seen diggante ak Arabie Saoudite ambassadeur bu bees la woon moo xamaguñu dara mu ngi sax ci hôtel mais ma commencé ak moom contacté ak euh, autorité yi moom ambassadeur bi nee na moom bu ma dem ma ne ah damay dem ndax am na li ma bàyyi sama réew daal wax dëgg yàlla te gamoon fii l'islam yi bëriwul ndax zéro cinq zéro virgule euh, zéro virgule cinq pour cent la xam nga ñun Sénégal yi nga am 97 ñoom téeméer bi nekk amaguñ sax benn jullit boobu jamono man kon su ma toogee ma yàq sax ma toog ma ñibbi ñibbi fii Sénégal li ma amoon nag moom def ko ci loolu la yàlla def na ma ubbi xësmul baniin bi dëgg yàlla nag mbir mi commencé daal di dox alhamdulilah rabbil alamin te rëccu ma ci nag benn yoon waaw kon yooyu pour wane ne wax dëgg yàlla en général commencement bi lu yomb gis na commencement bu yomb daal en général duñ jul dara moo tax bu ci yéen xeeb boppam loolu laa bëgg wax man yaakaar ku ci nekk ci yéen moom moo ma war a raw moo ma gën a baax loolu laa leen bëgg wax foofu bu kenn ci yéen xeeb sa bopp li nga am yéene liggéeyal ko l'islam ubbi daara alquran wala français wala fran wala wala français sax même enseignement privé français su fekkee ne am na ay jullit ñu ci mën taxaw nañ ci taxaw ndax ñun ñu ni privé catholique privé catholique nan la ñu wax Sénégal ñu ne ñoom jullit ñëpp ñu ngi jël seen doom yóbbu ko feesal ko del enseignement privé kat ku muuru sax ñu dindi sax kool sànni ko di saboté ay jullit ci réew jullit loolu pour dindi ko foog ñu taxaw surtout yéen génération moom bi nga xam ne yéen a war ubbi ay école privée français pur pour ngeen jàngal ko ñi ko bëgg jàng waaye defal leen tarbiya islamique comme ça ñu nekk ay jullit ñu baax ñu am ay médecins ñu baax ñu ragal yàlla suñuy jigéen ay jigéen ñu jàngal islam di leen seet kon ngeen xam ne yooyu wax dëgg yàlla di sonn na ci man ma wax ko mais li ma ci yéene pour jox leen leçon bi ñu ngi am yaakaar bu mag ci yéen sunu rakk yi sunu doom yaakaar boobu yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala def leen tamit def lu ko raw kon dañu teg suñu sëriñ bi lu ëpp li jazakallahu xayral jaza jël nañ ci waxtam lu bëri bëri xam nañu wax dëgg yàlla ko tënku ci ay liggéey ak programme di baalu tamit àq docteur docteur Momar Baare Diallo ñoom ñu sànq mu sànq mu mu toog waroon kon lépp day wone mbir mi benn la yéen tamit ñu ngi leen di baalu àq ak nu ñuy doxalee programme bi ak changement bi tuuti loolu yëpp kon ñu ngi ñaanal ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla defal suñ sëriñ bi barke at na àllaaxira ak ñun mu dooleel yàlla guddal fanam nag yàlla subhanahu taala Euh, solal ko mbubb bi nga xam ne mooy mbubb mbubb wér gu yaram mu mën a jëriñ ngir jullit ñi lu bëri bëri kon yéen tamit ngeen gën a góorgóorlu li ñu si jublu rek mooy soññi suñu bopp soññi leen salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu